wax dem ba Dia fii ci Pontedera ak Serigne Baye Makhtar Tall fële ca Touba Parme ci xarale bi Serigne Modou Mbaye Thiam Mbaye Fall euh, nuy ziar ñëpp nag di jiital ci ziar bi sunu Serigne sunu wasila Cheikh Mountakha Mbacké Bassirou di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye it di ñaanal mbooleem kilifa yi diine rawatina Cheikh yi Serigne Touba di ziar Eh, mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci diaspora bi dooni dooni ay sénégalais eh, ñu bokk fu ñu jógee eh, waaye yàlla dogal bokk ñu pas-pas ci diine kon nit ñooñu ñu ngi leen di di leen ziar mu mel ni buñ ci tuddee sunu mbokki chrétiens yi rek daanaka mënees nañoo yóbbaale ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax di ziar mboolem kilifa diine. di ziarit sunu jëwri ñi nga xam ne ñoo nekk ci rajo bi sëriñ Mouhamadan Mbacké sëriñ Ibrahima Ndiaye ak mboolem euh, jëwri ñi nekk ci ci rajo bi yëpp euh, am mbégte dellu si waat ak euh, di leen dégtal tey seen émission diaspora xam naa nag ni ngeen ko gisee am na coppite gu bees gu ci am ndax nag tey jii diaspora bu njëkk ba kii rek la daan doon nu tudd Euh, kii rek la daan doon comment dirais-je audio mais léegi nag euh, xaralek Modou Mbaye Thiam dem na ba nga xam ni yokk nañ ci vidéo yi kon mu mel ni hmm. tey ñi daan am yéene yéene gis suñu jëmm yi tey ji jàkkaarloo jëmmu Pape Baye Makhtar Tall ak Baye Demba euh, mën leen gis xam jëmm yi ba bu ñu dajeek ñoom ñu mën leen a seetlu waaw kon nag tey jii mbégte la ñu am ci loolu eh, sëñ Pape kon dama lay jox kàddu gi rek nga dugg nuyoo ñu doog a eh, tàmbali sëñ Baye bismillah waaw jërëjëf sëñ Pape auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sante yàlla jubbi ci sangu sang yi ñu ngi lay siyaar bu baax a baax sëñ Pape Eh, di rafet lu liggéey bu rafet bi bu sell bi nga xamanteni ni sunu technicien Modou mbay Thiam def nako ko ndax eh, yaakaar naa ni donte nag yow maag yow du nu gëj a gisee ndax ñu ngi ci vidéo conférence yi waaye dimanche yi moom daawuñu gisee tey jii moom ñu ngi na ñu ngi ñu ngi ne jàkk kenn ku ne sa morom. te mm-hmm. ku dëgg rafet lu liggéey bi nga xamante ni Baye Fall Baye Fall def na ko. Mm-hmm. di ñaan yàlla mu yokk lool. Eh, ci di jital nak ci nuyo yi seigne muntaha bashir di ñaanal yalla mu yag fi lol and ak wér di jël nuyo bi di tek ci loxo di nuyu bépp kilifa diine ak kilifa aada fu ñu mënti ne ci hmm di siyaar bu baax suñu jëwriñ ñi ci radio bi mhm. jël nuyo bi tek ko ci loxo euh, seigne mohammedan rek mok seigne Ibrahima di bayyi xel bu baax sunu jëwriñ euh, seigne Ablaye Eh, di siyaar aussi sunu sunu sunu sunu jëwriñ El Hadj El Hadj Cheikh Mbacke Mbuub eh, di ko wax ni ko namm nañu ko eh, di nuyu mbokku auditeurs yëpp bàyyiwun kenn nan ko daan defee rek dimanche bu jot dellu siwaat ñëw waxtaan ak mbokku taalibe yi waxtaan ak mbokki jullit yi ci lépp loo xamante ni information la wala mu di actualité Eh, wala mu di eh, jamono tolluwaayu jamono saa su ne rek ñu bëgg ko di ko saafonte ak sunu sunu mbokk taalibe yi. Mhm. kon sëñ Pape damay gàttal nuyo bi foofu rek di siyaar ak eh, ñaanal bu baax suma bunt ci Serigne Touba di Serigne Saliou Mbacke Darou Salaam bu ñaanal yàlla mu yàggu fi lool ànd ak wér. jërëjëf sëñ Pape Mokhtar jërëjëf mbokki auditeurs yi ñoogi ngi leen rek yéen ngi déglu seen émission diaspora fii ci rajo xasida online andi ci kaddu gi bay maktar Tall fële ci parm ak bay Demba ja fii ci Pontedera ñoo ngi ziar mbokk yépp waaye nag euh, di am ziar ziar boo xam ni ab njàll la ñu koy yëkkati ci turu rajo bi waaye di ko yëkkati ci turu Sénégal yépp di ko jox euh, sunu mbokk yi nga xam ni ñoo féete fële ca kaolak eh, di sunu kilifa gog nga xamni modi di cheikh muhiddin samba kamara samba jàlla safurla eh, baye ko fi semaine bi di kilifa gu mag ci dine eh, ñepp daan ko gis ci réseau facebook yi borom kala gu wex gi amone yene lol dan dan dan sede seede yu rafet ci sunu mam jariyatullah ci sëñ bu mag bi amone cofe lol ci yoonu murit yalla dogal limi dogal Euh, semaine bii mu bàyyi ko fi doon nag une grande perte pour la communauté musulmane ñu koy ñu koy jaalee mbokk yëpp waaye it euh, may ziar it euh, sama mbokk yi nga xam ni ñoom laa bokkal bunt ci waa mu di waa kër Cheikh Abdul Hakim mbake ndax nag waxtu wi bu dellu see at mu jot ci sax baan am na lu muy def ci sunu xol yi ñun waa Daaru Minam ndax jëmm ju tedd jooju de bis ni tey la fi bàyyi woon di Cheikh Abdul Hakim Mbacké doonoon rakk ci Serigne Mountakha mbake waaye ñëpp xamee woon ko ci jàmbaaram jam na mu meloon tekkam ba bëgg xasida euh, ñeme liggéey euh, ñépp xamoon nañ ko jamono ji fii hmm, sëñ Saaliw nekkee xel kom taxawaay ba mu fa waaye ñu xamoon ko ci bëggub liggéey na mu yaree ay doomam ci ni mu leen teg daanaka boo xoolee njabootam koy gis bitim réew amul euh, ñoom ñëpp ci tool yàlla leen yóbbu woon sëñ Cheikh Hakim yàlla na ko yàlla may mu bàyyi fi yàgg fi lool te ànd ak ñun ci liggéey bi gis ngeen bi waajuram bàyyi ko bi mu fi bàyyi ko euh, taxawaay ba mu jël taxawaayu waajuram ba la jël euh, boo leen xoolee ci liggéey université bi daanaka bokk na ci jàmbaar ya fa nekk moo féetewoo dispensaire bi ak jumaa ji sori ci lool nag ànd koog mbokki taalibe ñu ci siyaar euh, waa kër sëñ Bassirou yëpp di ko ziar it suñu jëwriñ sëñ Amsa Samb euh, dafa di woon tey jii rek mënee suta toog te fàttali wuñu Pape Makhtar sunu sunu sunu sunu sunu sunu jëmm jooju Cheikh Abdoul Hakim gis naa gis naa tey jii euh, témoignage yi ñuy def ci réseaux sociaux yi di ko fàttali waaye it nun it am na lu mu bàyyi ci ñun ba mënee su koo mënee su koo bañ a fàttaliku moo koy ziar ñëpp rek di ko ziar sama euh, sëriñ Abdul Hakim ak mbooleem koo xam ni rek sëriñ Abdul Hakim nga ci ci ci euh, ñu tuddee ko di ko ziar mbokk euh, yi nekk ci ci ci Italie yëpp waa Veneto waa Milan ñëpp rek ñu ngi leen koy ziar di leen xamal ni tey jii sunu kaamil bi nga xam ni dañ koy def at mu jot tey jii am na yëg-yëg ak jeexital bu mu bàyyi ci ñun. kon mbokk yi ñu ngi leen koy ziar bu baax. benn penco boo xamante ni dina am ay kuréel yu ci waxtaan euh, ñu gis ci nag benn défaut de communication boo xam ni wax dëgg yàlla ñun suñu bopp daf ñu xaw a jaaxal euh, bu nu gisee ni euh, le le le le ministre des affaires étrangères génn na am na façon bu mu waxee mu indi benn division ci suñu mu indi benn ay jaxasoo ak ay façon de voir les choses. Nous gis ni euh, suñu autorité diplomatique yi fii aussi ñoom ñi génn nañu ak benn vocal vocal boo xamante ni indi na benn jiixi jaaxa ci biir nit ñi euh, alors là on se dit que euh, suñu autorité yi peut-être ils sont pas préparés ci ci ci ci ci ci émergence bi donte nag donte nag ñoom amoon nañu largement le temps parce que émergence léegi bi commencé c'est depuis février la émergence bi nek fi donc tay jii ñu nek ci presque euh, euh, di bah, presque le 20 février euh, le 20 avril danaka donc on a eu largement le temps pour créer des situations yo xamante ni dinañu permettre ak lu mën di egsi rek ak lu mën di ñëw bëgg dal suñu kaw rek ñu mën koo euh ci and ci ci toog waxtaan ci ci téru ko motax may wax ni dafa am ben ben benn pàcc boo xam ni dafa manqué ci émergence bi mooy ni que euh, gis nga na ko yeneen xeet defee depuis bu yàgg ñu ngi ko doon wax fii ci rajo bi lu mel ni euh, communauté marocaine bi ba yëf yee këtt ne jonn dañoo woote seen cellule de crise ba ñu wootee seen cellule de crise créé ko di def seeni waxtaan di xool situation wu euh, seeni naataangoo seeni compatriote fan lañu nekk ak yan jafe-jafe lañu am ak gox yi ñu nekk te nekk confinement est ce que ñu ngi am jàppale ba ca war donc ñun dañoo bàyyi ba jaan gi rom jaan gi romb ñu dóor ci watat gi te yaakaar naa bu boobaa da ngay da ngay sonn rek waaye da da nga yéex a jot et loolu mooy indi nag défaut de communication bi parce que man mënuma concevoir suñu autorité diplomatique génn ak benn vocal benn membre wala nu ma ko mën a tuddee euh, c'est c'est même pas un fonctionnaire mais kuy liggéeyee ci ambassade bi génn aussi ak beneen comprendre ñu la ca parce que ci biir waxtaan wi biir waxtaan ci biir vocal bi nañu ko déggee ñun nous ne que nañu ko tënkee rek mooy maanaam lépp décidé nañu ko depuis Dakar indil ñu ko tegal ñu ko donc ñii la jox ci premier tranche bi mais en ce sens tig yu nekk ci dëkk bi fii te je pense que li may faral di wax ci rajo bi saa su ne loo xam sàmba bàcc gën laa xam boppam dañu wax ni mën nañoo euh, jox ki nga xamante ni dafa tagga témbe mais taggateem bi mooy lan que day ba waroon dem Amérique mënatu dem Amérique mu ñëw Italie daxaw ay Italie mais du dëkkul ci hôtel dëkkul ci hôtel Baye Demba Baye Demba Dia moo ko hospitare di ko jox mu lekk di ko jox mu naan taalal ko làmp taalal ko leneen ak leneen dalal ko léegi yow koku ñu dalal nga diko dimbali te do dimbali ki dimbali mom te buñ né taga baku am dañuy bëgg a suñu mbokk sénégalais yi nga xamanteni tollu toll nañu daanaka ci junni ña nga sénégal tok te lañ yobbu won jeexna na ñu luñu jox njabot gi bu nu xeyé dañuy tok di xol njabot gi ñu leen di xol ndax seen liggéey ak seen yëngatu yëpp fii la ne donc man dama japp ni dama japp ni comité bi ñu wax ni ñu ngi koy créer comité bi donte créer ko baax na parce que liggéeyam mën na am yeneen i yeneen i fii nii mën na am yeneen i njeextal waaye ci wàll yi ci premier tranche bi comité bi amul dara lu muy def te ba tey fii ñuy wax nii amul benn comité boo xamante ni réunir na waxtaan na ba ni lii la tënk parce que critères yi ba ñu ko indee it critères yi comité waroon waroon critères yi waroon na fee fekk comité mais critère warul jiitu kim comité c'est comme de première tranche mais li fi parce que les sénégalais ont droit à l'information mais malheureusement nous subir subir c'est un cri de cœur pour nous, parce que nous n'avons ñu le geste bi président de la république Nous dañ ko rafetlu Nous deug dañ ko Nous avons bu à l'extérieur tout na bari na c' pas ça la question mais amna na ñoo xamante deug dëgg-dëgg yelloon nañu ko mais kon ñu liggé ci dans la transparence mu am information bu leer nga xamante sénégalais bi nga xamante ni na ko ni mom li mom amu ci cër parce que amna na ñu ko gën a du kaas du wax ndax amna lu leer lu luñ ko wan mais tay man mi xawma ma ñaata moo fi dugg parce que ci message yi ci ci bataaxal yi ñu yónnee ci vocal yi ñu yónnee kenn waxu ko ci mais suñ par Italie boo nee da ngay jox deux mille euros ñi nga xam ni ñoom ñoo faatu ci coronavirus ak ñi fi faatu euh, cinq cent euros ak ñi ñi ñi nga xamante ni dañu am problème mais ñaan ñu yàlla euh, fasha boobu mu yokk kon yow imagineel yow pratiquement dix mille euros doo ko fi dépensé mais doo dépenser dix mille euros en Italie ñi fi faatu à à Dodge dañ ne ci trente neuf personnes quarante personnes yooyu la ñuy toll calculer quarante personnes par deux mille euros ñaata la euh, ci diaspora bi ñi faatu diggante ci diaspora bi. Mhm. mais kon xaalis boobu euh, premier tranche boobu ngay wax kon bu ñu joxee ñooñu kon premier tranche bi la cee des léegi yow wax ñu lan nga koy def parce que xaalis bi diaspora moo ko moom mhm. diaspora dafa am droit pour xam. ndax ñun ñëpp kenn ku ci nekk ya nga yaa nga doon wax naan lii mën nañ koo jël def ko loo xamante ni amal nañu njariñ Sénégal léegi nag quels seraient euh, euh, euh, yeneen critères yi nga xamante ni dina ñëw ëllëg parce que fàcce yi fi nekk bari nañu mhm. am na ay coono yoo xamante ni nit ñaa fii kii man dama gëm ni comité bi mi ngi nekk ci phase work in progress mhm. comité taxawagu fii donte nag xëy na ñu ngi koy construire waaye comité taxawagu fi pour mën a xool ci ban anam la ñuy liggéeyee nous devons attention aussi parce que euh, beaucoup nous aussi politique rax ko waaw nous politique rax ko parce que c'est pas le moment de division c'est pas le moment de querelle politique li nu war ñun moom mooy àndandoo daan nga xamanteni ni mo moo jamono buñ ca jógee nak kenn ku ci nek fa nga far ñu commencé njoosante commencé def lenen ak lenen waaw <laughs> jërëjëf xam naa du yomb. waaw yombul. ni nga ko ni nga ko waxee noonu du yomb ndax expectative euh, euh, yi moo bari. ndax tey jii immigré bi nga xam ne mi ngi nekk fii euh, tey jii deux cent euros yooyu bu ñu ko yóbboo Sénégal dafay nekk lu rëy waaye immigré yi nga xam ni tey jii boo xoolee sur le plan hmm, sur le plan social. immigré yi li ñu jox tey association itali sénégalaise yi li ñu gum jox ko protection civile mo upp li fi état bi dugal defe naa ndax Brescia rek defena naa cinquante mille euros lañu lu ëpp 50 000 euros cinquante six euros lañ dajale. Reggio Emilia. ah hein? Reggio Emilia. Reggio Emilia wa comité musulman. donc euh, euh, euh, nga boole tey jii l'Italia dal nord al sud bo jëlé li ñu dajale euh, nekul sax matul sax asaka euh, li li Sénégal dugal lolou moy euh, ñak waxtan ak ñak xam vraiment mm, sociologie de kibi ndax tay ji xam nga des fois dafa am ay gestes yo xamni ni <coughs> dafa touti mais dafa significatif nit ki day toll ci jafé jafe amuloo xaliss nga ñew tok ci wétam ni ko massa léeg-léeg mooy gën sax nga gën nga indil ko dërëm ni ko teel lii jënd ci ndax xam na ni dërëm boobu mun ko jariñ waaye massa bi nga koy def toog ci wetam mu gis la xam ni yow diagnostic de les problématiques xëy na tubaab euh, lañ koy mën a waxee maanaam euh, euh, saytu jàngoro yi nekk ci biir dëkk bi moo xam tey jii dëkk yi nga xam ni comme ñun niñ ko defee woon ñoom la yii fi njëkk a dal ban problème lañ am seet par exemple ñi seen ñi ñi ñi tàqaloog seen njaboot yi ndax ñooñu waruñu leen indi soutien même bu ko état bi deful sax

Air Sénégal mais ñun ñoo ko moomal sunu bopp ñu ci defee essence kese chauffeur yi ñun ñoo leen di fay tey jii mille cent yooyu euh, c'est un bombe euh, c'est c'est c'est c'est une à retardement ndax tey jii euh, su fekkente ni ñooñu dañu toog risquer perte seen liggéey am jafe-jafe ba nga xam ni tey jii dafay nekk succession boo xam ni mais dafa nar indi. ay ay problèmes yoo xam ni kenn xamul nu mu toll waaye léegi ñooñu nu ñuy def te état bi bu ko neexoon day taal day day day woo euh, na fii ministre euh, Di Maio ni ko ñun dañoo am ay liggéeykat yoo xam ni fii la ñu nekkoon ay sénégalais yu nekk en régle yor fi seen njaboot maanaam mappaare leen comme ni italiens yi mappaare seeni doom ba nga xam ni léegi léeg dañuy jël déplacer avion mu jëli benn nit ci benn dëkk dëkk ba dëkk. Mhm. asamalaak ce nga ñetti vol yo nga ko de ba mu place milliards parce que day wane ni yow ya ngay taxaw say Sénégal frontière frontière pour ñu rétablir un pont aérien normal peut-être il va falloir d'ici six mois mais est-ce que ñeen mën nañu xaar six mois xeetu Italie rek mais te te pourtant Sénégal ay accord war na am accord diplomatique yo xamni Mais da fay créer un pont humanitaire ndax ñoñu ñu def Sénégal tey leen fa yalwan bayiwuñ leen fa ñoñu dañu nekk ci dëkk bi di liggéey régulièrement di fay ay taxes ñoñu tey ji buñu liggéeyul waxuma waxuma même même Italie fay subir tànn mais tànn yoy. dañ ci wara xalaat bu baax réfléchir si jéem trouver des solutions toog ak ñoom parce que man gis naa ni même comité boobu créé nañ ko mais euh, euh, mais est-ce que est-ce que dëgg-dëgg état bi mi ngi rencontré communauté comité boobu je pense que Baye Diouf mi ngi ci Papis Tamba mi ngi ci mais dégguma seen benn approche ak man lu may dégg ñuy wax peut-être euh, possibilité ay ay ay ay ñu ngi koy waxati compagnie aérienne i seet ban solution lañ leen jox ba pare nag am na ñoo xam ne dañ fa nekkoon déjà ñu ngi woon ci ay problème parce que boo leen boo fàttalikoo ak Air Sénégal ña nekkoon Sénégal Air Italie astafurla Air Italie fallimento bi mu amee ñu leen di wax ni leen bu fallitoo mën nga choisir tel vol tel vol far ndaw yàlla lépp euh, euh, wëlbatiku euh, dëpp tey jii ñooñu situation bi ñu nekk moo gën a graaw parce que ñooñu tey jii seen compagnie déjà compagnie yi nee nañu du ñu rembourser kenn parce que bu buñ ko defee muy indi fay général fayit général boobu imaginel tey jii compagnie boo xam ni fayit na ba pare compagnie boobu tul sax taxaw di di di wax yooyu ay problème sociale la yoo xam ni tey jii état bi waroon na am dëgg-dëgg fii tey jii assistante sociale boo xam ni man am na am na ku ma woo ni ma dafa demoon Sénégal di ci problème administratif bàyyi fi ñaari doomam yoo xam ni ki ci gën a mag amagul six ans bàyyi leen ak doom jë borom këram kenn ki trois ans la am kenn xam am am cinq actuellement elle est bloquée à Dakar jëkkëram mo fi nek xolal kese wara assister xalé bu am 6 ans ak 3 ans mais lolu ay jafé nous euh, euh, lu yu dund yo xamni ni lu mais mais dafa melni ñun dañu basé wu ci ñaari focalisé wu ci problème de 12 milliards mais 12 milliards nous nañ ko

mais li war a am fii ak ñaari weer ñetti weer ndax tey jii boo xoolee ñi ngi dugg ci weeru koor mois de mais mois de mais en général ñi daan jaay commencé nañu ñëw di di yoru nekk ci booru géej gi te ren géej mun taam jafe-jafe yi nit xalaatul dem géej tubaab yi psychologiquement tal nañu leneen lu dul dem almaare ñi koy def daanaka ma gëm ni kon sénégalais yi yi nga xam ni seen sen sen dund ñi ko doon wékk parce que am na ñoo xam ne dañ daan ñëw def fi 4 5 mois def le plein euh, am luñu luñu luñu fortatu lu ñu mu mel na ni kon am na ñoo xam ni seen dund ñu ko daan wéer ci été jigéen ñi nga xam ni saison ba saison lañ daan liggéey ñooñu tey jii ban impact lañuy dund pap affaire yi dafa bari ay ay ay euh, ay conséquences tey jii euh, balnéaires yi même ñoom ñoom ñu koy wax ñoom tey jii Italie defe naa ni. lépp lu fi amoon comme prénotation ci euh, euh, fii ba defe naa décembre yëpp annulé nañ leen dëkk bu amul prénotation ci wàllu secteur alberghière nga xam ni bu ñuy wax euh, stagionale ñi daan liggéey ci ci ci ci géej gi maanaam hôtel yi yooyu yëpp raxas la lava piatti dafa amoon benn circuit boo xam ni tutun tutun lindotto moo ci daan liggéey ñooñu ban situation la ñu war a nekk te ñooñu ñu ci bari Euh, stagional yi xëy dugg nañ ci circuit 600 oreilles. mais état Sénégal ban taxawaay la am motax vraiment je suis très curieux de voir deuxième phase bi lan lañ wara a def seigne Pape. wa xam nga seigne Pape jërëjëf xam nga euh, yaa ngi wax euh dan déga bi nga xamanteni ni euh, ñi Sénégal ñu koy subir mais <laughs> boy xol boy xol ñom du ñom rek ñokoy subir sax hein Euh, ñoom effectivement ñu ngi koy subir bu métti métti métti parce que ñu ngi dund lu mu xamul seen njaboot ñu ngi koy subir lu métti métti métti parce que seen njaboot ñu ngi leen di muñal lu métti euh, économie italienne l'économie italienne parce que tey da ngay xool agriculture bi tey bay nañ ko ba euh, organisation syndicale yi xam nga génn nañu sax bay demander pour que ñu régulariser clandestin yi fi nekk pour que agriculture bi mën a dem. di ma ci interpellé dama ni woon loolu sax dama koy def kàddu gu mujj. bari mbokk yu may yu yu sama yëre ci loolu. waaw waaw maa ngi waaje a daanu gars yi may ñor <laughs> xam nga ba tax na euh, donc l' économie ci boppam. Euh, tak bi gaañi tak ci àll bi. parce que bu ñu yaakaar rek ni gaañi Sénégal rek lañ nekk ndax Sénégal xam nga mii la fa ne. bul mm-hmm. xam Burkina Faso lu fa ne wala Maroc ak feneen ak feneen. dëgg la te wàll gi ñu ci bari ay ñii ay opéra yo agricole lañu. Mm-hmm. bari dañoo ba ñoo pare seen i campagne rek daw ñibbi. Mm-hmm. yëf yi fekk leen fa donc lépp lu ñu yore woon ci loo xamante ni. Euh, moom lañ doon sutur la woo tey jii jeex na. Euh, wa ilaa yaakaar bañ ca am amatuñu ko te gisuñu ndimbal. Euh, rax ci dolli yaa ngi wax sànq lu am solo. ñu ngi dëgmal weeru koor ku ne xam na weeru koor wàccaay gi mu laaj dafa laaj wàccaay. Mhm. Euh, euh, donc euh, situation bu critique la alors man en ce sens damay wax ni bon c'est war nañ ci def njàngat suñu suñu autorité yi war nañ ci def njàngat. Mhm. non seulement war nañ ci def njàngat mais parce que plateforme bi nga xamante ni nee nañu créé nañ ko. plateforme bi ñu créé man xalaat bi ma ci am mooy plateforme boobu warut ñu koy jël di ko soxlaa wala ñu koy doyee pour ku am soxla wala nga ngay bëgg ñaan dimbal nga cay dugg di ci inscrire amul chance amul chance sëñ bi italien yi bi ñu demee ba nga xamante ni bëgg nañoo dimbali ñu dëkk ci biir commune yi. Mm-hmm. est-ce que Conte moom moo ko distribuer. dañ ko dañ ko dañ ko décentraliser jox ko mm-hmm. commune Mhm. communes yi ñoom xam nañu service social yi xam mhm. nañu ñan ñoo ko soxla ak ñan ñoo ko soxlawoo far yàlla mi dara tëwul ñëpp lañ jox ñëpp lañ jox waaw ñëpp lañ jox mhm. maanaam mbir gis nga yëf système la mais bu fekkente ni da ngay yaakaar ni yow na nga koy organiser rek noonu la gis nga cette cette plateforme la waroon nañ ko soxla pour leneen ñun tey amuñu données statistiques sénégalais yi si diaspora bi ñaata lañ mais mais mais Euh, joxe nga une proposition nañ ko bind parce que l'homme de war a nekk luy egg ci kaw. parce que tey jii bind nañu plateforme boobu nañu fexe ba plateforme bi jëriñ pour ñu xam ñaata sénégalais ñoo est à l'extérieur. pourquoi pas. parce que tey jii euh, dinañu nous a xam. Mhm. Euh, doomu Sénégal yi. mais ku mhm. nek fa nga nek, ka nek Australie. nek fa manam, nek un ingénieur dans le secteur pétrolifère férique ñu mën ko sax contacter. ndax nag jaadu na tey jii euh, comme ni ni ni ni ni italiens yi amee ay ARS. Mhm. xam ni tey jii italien bu génn dem à l'estero da ngay dem mhm. inscrire wane ni man maa ngi bitim réew. tey jii fu mhm. jafe-jafe am sa dëkk daf lay contacter en un clic. ni la tey jii dëkk bi kat am na problème noo mën a def demal jege sa ambassade. taxaw bi ci war danañ fexe ba yóbbu la. loolu te nag te nag man dama koy wax. nous devons avoir un ministère pour l'immigration parce que les sénégalais de l'extérieur politique là politique là Madame Dou, dañu un ministère pour l'immigration, pour immigration mooy liggéeyam l'immigration, affaire étrangère li tax ma Pape immigration quinzième région mm-hmm. jox nañ 15 15 députés mm-hmm. ñu ne la dinañ dugal mille deux cent milliards mille deux cent milliards ci pilu Sénégal mais ñaata la. Euh, loolu loolu tey jii dafa war a am euh, think tank maanaam ñu liggéey di xalaat pour ñooñu di leen xalaatal fu ñu war a def seen xaalis parce que tey jii xoolal tey jii amul amul benn liggéey bu am Sénégal wala marché bu am Sénégal wala projet bu am Sénégal ba ci jam ñaajo tey jii jam ñaajo bii Macky Sall lancé. Sénégal émergence mm-hmm. mais immigré waron nañ ci am ben wàll wo xamni sen seen yi ñuy génné diko jël directement Sénégal mo leen koy jëlal duggal leen ko fa wala bok créer leen à travers leur banque xaalis bi ñuy duggal rimessa moy loolu ngay wax toujours ñu waron mm-hmm. ko jël canaliser ko ba nga xamni tay ji Sénégal bu ko France fëggee mëna France puusal fële soxla luma la dërëm parce que nak attention ñun li ñuy duggal Sénégal mo ëpp boo boolee tey jii Sénégal li muy dugal ci ci rimessa moo ëpp fuuf li ñu euh, maanaam coopération internationale di dimbali te boo xoolee coopération internationale bu ñu joxee dërëm dina jëlaat ci ñun fukk loolu. Euh, suñu dëkk dafa ñàkk am benn njàngat ak ñàkk am yëg bu mu yëg-yëg bu mu am ci immigré valeur immigration loolu ba ci décision yi ñu mujjee jël ci wàllu néew yeeg yëpp dafa am dafa nekk benn benn su euh, sous-aiguille si boo xam ni tey jii boo ko doon definir pap doo fi jóge mais nag dafa mm. jaadu tey jii gis nga xalaat yu rafet yi ngeen di am ñu koy bind di ko di ko di ko yëg ba pare nag di insister parce que comme am na euh, lu bees lu am tey jii bi xew-xew yi amee Sénégal yi ñi ngi booloowaat doonaat benn say ñu mun a am benn kàddu mën a yóbbu nag proposition yooyu pap ci ci suñu ci suñu kilifa yi. xam nga xam nga li tax ma ma laal loolu euh, génne proposition bu mel noonu parce que xam nga bi yëf di tàmbalee benn moment ñun communauté bi yëpp dañoo ànd manko yaa ngi mhm. joxe yaa ngi joxe lim sànq euh, association Brescia communauté musulmane bu Reggio Emilia mhm. Toscana Conegliano eh, ñeneen ak ñeneen ba waa Parma ñoom sax ñëpp a joxe mhm. euh, sénégalais bi yëkkati alalam ci poosam di di yëkkati di ko jox boobu xalaatuñu sax ñun que ni gouvernement danañu jox dara. Mm-hmm. kon sëñ bi ñun ku ñu woo ci solidarité yàgg naa ko wax ñun diaspora bi ku ñu woo ci solidarité dang ñu caa fekk. Mm-hmm. soxlawuñu ñu indil ñu loo xamante ni daf ñuy diviser wala mu ñuy pëccaxool. Mm-hmm. kon plateforme bii nga xamante ni euh, le gouvernement créé na ko bu doon sama sago ñu dindi Covid.

mais l'association, elle représente vraiment l'autorité diplomatique ou le consulaire au niveau de la, de la localité. Mm-hmm. nga def recensement à travers cette association ak Daïrebi. Mm-hmm. surtout surtout surtout Daïrebi. bi. Mm-hmm. bu ko defee ñoom ñu lëkkaloo waxtaan la nit ñi nga xamante ne am nañu yenn coono yi comme ni ñu koy transférer communes yi nga transférer leen ko parce que ñoom ñoo nekk au niveau local ñu génneel la nit ñi nga xamante ni dëgg dëgg yelloo nañu ndimbal loolu mais man dama lay jox exemple xam naa yéen parme loolu ngeen di dund ñun fii au niveau des communes association yi ñu ngi joué rôle bu important euh, ñoo nekk pont entre communauté étrangère yi ak ak autorité locale yi euh, ci accès service yi ci facilitation bi ci médiation yi yooyu yëpp dafa nekk loo xam ni tey jii service euh, autorité locale yi mënuñu def sans les associations et hmm. ça doit être la même chose par ak suñu autorité diplomatique yi je pense gis nga sëñ Pape xam nga lu man ma naw communauté sénégalaise bi hmm. fan yële ci ginnaaw sama benn xarit daf maa woo hmm. benn mu ne ma euh, Pape man daal dama amoon benn xalaat ñun amuñu association fii au niveau de Parma amuñu association mais dama amoon benn xalaat sama xarit éthiopien yëpp dama leen a bëggoon a dajale. ñu mhm. joxe ñu participer pour ñu pour ñu euh, dimbali le système sanitaire. Mhm. ma ne ko defal comme ñun sénégalais yi ni ñuy def. déjà maa ngi jël référence man par rapport ak ñun communauté sénégalaise bi. Mhm. ni ñuy doxe bi ñu defee loolu dajale nañu lu toll ci six mille et quelques euros. ñoom ñu te pourtant duñu association. Hmm? après xam nga lu ma ko wax ma ne ko. communauté sénégalaise bi foo dem ñu ngi def espèce de solidarité. Mm-hmm. xool askan wi ñan ñoo am yenn situation yi ñu kii ko nee na ma ñoom dajale nañu fi ñu toll nii daanaka garage ba mu fees dell ci ay ndimbal ay lekk ak ay yeneen ak yeneen. ñi ko ci soxla bariwuñu mooy ñi nekk ci centre yi. ñoom lañ koy yóbbul. Mm-hmm. donc ñoom sont ñu jël ko yóbbu ko ci centre yi. Mm-hmm, képp koo xamante ni yaa ngi centre yi ak ku du ku nekkul sax éthiopien. Mhm. donc pour ñun on est une communauté vraiment de mhm. te loolu bu ñu ko kenn yàqal. Mhm. nañu ko sàmm. nañu ko sàmm. ñu koy sàmmee nag mooy xamal nguur bu fi ñëwatee ñu demandé ko à ce que caro governo ñun bëggatuñu kuy liggéey pour ñun mais li nu bëgg mooy kuy liggéey ak ñun. nga boole ñu ci instance de décision yi ñu waxtaanee ko wax la suñu bopp wax la la ñu ca namm. ak li nga mm-hmm. xamante ni moo gën ci askan wi. Mm-hmm. canal yi am nga ko mais boo bëggee toog fa nga toog bëgg a jël des décisions réeroo rek lay indi parce que cette plateforme mën nañu servir pour que ñu xam diaspora bi dëgg dëgg ñan ñan ñoo fi nekk. après chaine rek nga am nga këyit wala amoo këyit wala ci tadi naan sa nga wala nekkuloo ci tay naan sa mais kam ñu xam. benn donnée statistique boo xam ni ñu xam ni sénégalais yi nekk euh, dans la diaspora sénégal euh, ci àdduna bi nangam nangami nit lañu nangam lañu toll. loolu mhm. ñun bu baax a baax ci recensement yi suñu Pape. dëgg la parce que tey jii euh, boo xoolee hmm, pratiquement déjà mécanisme yi ñu wax tey jii man man j'aimerais bien le parce que maa ngi xool ñu nekk ci situation par exemple clandestinité ñu ci mhm. bari am kayit Pape nekk ci centre yi. nga xam ni même seen carte d'identité doon demandé amaguñ ko délivré guñ leen ko euh, ñooñu tay jii yane mécanisme lañuy ñuy def euh, parce que nit ki bu inscrire aussi il faut mu joxe feedback bo xamni da fay wane ni ki kat limi wax dëppoo nak li nek tay ji ñi nek ci centre euh ñi am jafé jafé yooyu yëpp dafa nek ay euh, situation yo xamni tay ji euh man dama yakar ni diagnostiquer avant tout le problème. Euh, am ay ay ay euh, créer une commission boo xam ni da ngay am ñi ngay waxal xam ñi a dem ci euh, Sénégalais parce que tey jii man lima lima jang à travers groupe association yu bari parce que man yalla def na bokk naa ci suñu groupe WhatsApp association fi ak yenen mais dama gis ben frustration bo xamni président d' association am nañ ko ci ñak boole bu ñu leen boole ci projet bi carrément ñom dañuy expliquer nous lii lañ ko ni lañ leen ko joxé donté nous nañ nit ñi wax nañ nit ñi naka wara naka lañuy défé parce que amna déjà ñu commencé inscrire euh, euh, dugg def ce euh, def simulation bi mais gis na ni amul kenn nous xamni jël jël jël jël projet bi def ko sa projet encore une fois encore une fois que euh, déglu bi nga xamni mom le président di di di di di di diaspora bi man déglu Nako aussi avant-hier euh, euh, bi mu def interview mais préoccupation yi yi mu def lu ci bari ci diaspora bi communication nga gis Sénégal stigmatisation bi ñu parce que euh, ki qui yilif kër gi bu bu bu bu tolloolewul ñëpp jël ki di ko di di di yëkkati tek ci kanamu kële loolu mom moy waral tey jii nga gis Sénégal ni ñu doon stigmatisé stigmatiser immigré mais yalla def na ba nga xamni ni tey jii euh, yëf yaa ngi rientrare wax deug fa yalla tey jii gis nañu ne jafé jafé yi fépp lay jóge mais wul ci sénégalais donc euh euh li may xelal li may xelal tey jii association yi. ak daayira yi mooy am na collectif yu commencé juddu euh, ci dëkk yi diaspora yi nañu fexe ba collectif yooyu euh, doon ay ay voix yoo xam ni nit ñi dinañ ci mën a dem pour porter la voix des immigrés euh, ak association yi nga xam ni tey jii ñoom it am nañ yaakaar ni association yi war nañu mën a taxaw Euh, euh, euh, accompagner les autorités parce que nak lolu mo ci am solo autorité bi liguey bi yëpp mënu ko def té mënu bu ko sax mënu ko parce que tey jii amul mënul arrivé fi fi fi fi réalité sénégalaise yëpp à travers les associations il suffit d'une coordination rek tey jii ñu wara mëna a def ay réunion créer comité de crise mu tàmbalee ci suuf ba ci kaw ñu xam dëkk bu nekk ñen ñoo fa nekk ñeen ñu parce que association yi euh, euh, que ñu dox que ñu bañ a dox am nañu ay punto di riferimento punto di riferimento yooyu nañ leen woo teg leen réel ñu toog euh, ak ak daayira yi vraiment war nañu mën a war nañu mën a war nañu mën a joxe une réponse unique man de li ma doon xalaat tey it wax naa ko si doon sama sago kenn du def demande mais nag comme ñoom sayar dañ fay bare xam naa ni sayar boo mootul mu ne dañ maa mettroon en quarantaine pour bëgg <laughs> bëgg a mos ci yi xam nga mais wax dëgg fa yàlla waroon nañ joxe une réponse concrète devant l' état xam nga taxaw setaan ko état bi bu gisee ni ñun ñii kat taxaw nañu seetaan xëy na dina dellu si sur ñun wala créer sax euh, une une fenêtre de dialogue pour xam exactement quel est le pour ñu mën a ñu mën a ñu ñu mën a waxtaan mais bu fekkente ni euh, euh, da da dañu bu yi xewee ku nekk yaa ngi bëgg taxaw ni man danaa fexe ba représenter wala man danaa fexe ba mm, ba am ci euh, nu ma ci amee parti politique yi aussi moment bii war nañu mën a taxaw ñoom seen biir ñu def benn lu ñu koy waxati benn xaw ma na naka laa ko mën a waxee créer benn. benn moment de pâché euh, euh, euh, fexe ba ñoom ñëpp ñu am benn kàddu mel na ni am na mbokk mu nekk ci biir de salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw mbokk mi. man Baye Fall Touba Mourano. ñu ngi sunu waa ji ñu ngi lay ziar. ñu ngi ziar bu baax a baax di leen ñaan jàmm mais na ni tey jii bari nañu ay maa ngi gis ba Brésil ñu ngi ñuy suivre ah. Hmm. ah koppar yi la ah, boo ko waxee compal bi moom maa ngi gis ba Brésil gaa yi ngi yónni message sëñ ñang bisimilah. di ziar sëñ Sirou bu baax a baax. ñu ngi lay ziar bu jàmm ak xéewal. jërëjëf jërëjëf. ñu ko yàlla boole. Mhm, amiin amiin dama dama wax waaye moom wax dëgg yàlla chaque chaque jour maa ngi maa ngi maa ngi teewlu. dina mhm, mhm. moom dama naa sànni ñaari baari tuuti rek. te bëriwul bisimilah di xam ne moom wax dëgg yàlla moom yéen ku leen diglu rek eh, si si kanam nga jëm. Mm-hmm, mm-hmm. maanaam jàpp ku mel na yow ku mel ne seen siidi moomu ku mel ne askase. ak mm-hmm. ñeneen. tànk jël na eh, jël eh, seen loxo jàpp naa du mas ndax ku mel ne ku mel ne man nga xam dafa nekk senegal xamu dara si immigration xamu dara nit ñi dund jo ñu dénk ko ko. xam naa ne du mën a yilif dëgg la. tey jii dégg naa euh, li li conseil bu wax dégg naa dégg naa vocal. Mm-hmm. damaa jàpp ne bu dara ñëwee rek bala ngay génne benn information si boppam war nga am comité boo xam ne war na ko mën a samp ndax ila li lu mën di bëri bëri mm-hmm. buñ jëlee wala quarante personne te yaakaar naa am na fu ñu xaj pour mën a waaw mais mais ñang bu fekkee dañ koo jox ordre ca kaw ni ko doxalal ni noonu rek lay mën a doxalee wala Pape Makhtar waaw waaw dafa dafa dafa jot ay indication rek. daawul demee noon nag ndaxte suñuy dërëman dajale ndax ku mel ne ku mel ne Serigne Mountakha joxe deux cent millions keneen keneen joxe du xaalisam suñu suñu xaalis lan lan dajale. kon bu war a ñëw ba si ba si askan wi nu waxtaane ko xool xool ni muy demee kenn ku ne nu waxtaane ko bu ko defee dem fu mu war a dem. Mhm. ndax avant avant muy ñëw Sénégal yi jóg na daayira yi jóg nañ jël lu takku jox ko gouvernement italien italien. kon yaakaar naa ne bu loolu ñëw teg seen loxo dana gën a set dana gën a sell. dëgg la. kon dana gën a set dana gën a sell waaye ko defee nii rek euh, dèjà xel xel xel yu bari seen xel dalul. Mhm. ndax waaye dafa njëkk wax si wolof ndax bu demee bay wax ay ay ay ay ay téeméeri euro ay yooyu di wax wolof bu ko si si si français si li gën a leeree ni nga ko bëggoon a waxee ndax lënd mën ñu bëree bëri. Mhm, mhm. kon kon nag ñoom bu ñëwee bu ñëwee bu ñëwee ba ba wax ak nit ñi dama war a toog nit ñi toog ak toog toog borom xam-xam yi. Mhm. bu defee danañ mën a am liggéey bu mucc ayib. ndax day dem ba dañuy diviser ñaari Sénégal ku am kayit ku amul dañu mën xam xamu ne ñaata Sénégal la nekk xamu ne ñaata Sénégal moo am euh, consulaire. Mhm. foofu moom dañ fee dañ fee jum dëgg dëgg dëgg. dëgg la. ndax nag boo yoree say say doom na da war a jox jox la gën ndax mbir mi sa Sénégal la commencé woon. Mhm. ñu fa dem ñëpp façon mën a dégg nañ ko. te loolu suñu njiit la tàmbalee. Mhm. Mm. kon nag nit da nga ko war a da nga ko da nga ko war a jox cër jox ko jox ko mais noonu boobaak léegi amuñu amuñu kenn koo xam ne mi ngi nii mi ngi teew ñi ñi ñi ni jox ñëpp mun noo yor. dëgg la. ndax ab dëkk boo ko nekkee xamoo léegi ni muy demee xamoo ni muy doxee mais doo ko doo ko mën a dimbali. dëgg la dëgg la. ndax fi mu toll nii bii nii wax naan dem na sa compte kenn amul jot génn kenn amul jot def dem. dem consommer am na ñoo xam mën noo bind am na ñoo xam ne ni am. dëgg la ñëpp ñëpp mm-hmm. xam man xam ne mun yaakaar naa ñu fi nekk amul kenn kenn du soxla. Mm-hmm. nu koy nu jël ndax kenn ku ne yaa ngi bëgg boo amee ñaar dërëm la jox dërëm ñu jox seen mbokkum taalibe. dëgg la dëgg la. kon nag nii ci loolu nu bëgg leeral mais dara amul. dëgg la dëgg xam naa xam naa mbokk mi mi dugg léegi te kiiwagul ba ñu ngi ñaan ku dugg rek bu la joxagul kàddu nga tëj mbokk mi bisimilah. waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam tur bi naka la ak fooy wootee. Mayel Seck laa tudd nekk fii ci tubaa Brésil. Ah, ah Brésil yéen dafa mel ni kon yéen a ngi ci bëccëg. waaw ñun nag ñu ngi ci bëccëg. mais nag attention xaalisu Italie mënuñu leen ci compal de bu leen sax xalaat lool. gars yi boo boo laalee koppar daal gars yi ñoom xaalisu Italie moom waa Brésil nañ lijjanti seen bos ñun ñu lijjanti suñu bos. ñun kay eh, sunu xalaat ñun xaalis bu fekkee Brésil am na xaalis. Mm-hmm. tey jii bu ma ci xalaat bu ma ci war a wax mm-hmm. daal xaalis bi lu ci doon jaadu ñu jël ko. Mhm. association bi. dëgg la waa waa Argentine tam ñi ngi yëglu <laughs> sëñ Diagne Seck en tout cas ndax fii ñun daal am danoo am jafe-jafe loo ci wàllu état bi ñun am nañ ci jafe-jafe maanaam dafa mel ni mhm. maanaam boolewuñu ci ñun ndax tey boo doon déglu tey tele yi sax ñuy wax naan mud mud yeeg yi doo dégg ñu tudd Brésil te Brésil gi li fi nekk ci ay sénégalais kenn xamul nu mu toll. dëgg la dëgg la yéen am ngeen lim bi à peu près Aline Cirka ñaata ngeen war tollu ci ci buñ ko doon xayma. noo wax dëgg yàlla man lim bi comme nu mu toll waaye dama am daal loo xam ne dama koy naqarlu lool. Mhm. loo xam ni boole duñ lim dara ba boole ci waa Brésil duñ lim dara ba boole ci waa Brésil. dëgg la ne Brésil ku bëgg xam dara lu lu sokk ko ci Afrique mbaa ci Sénégal yaay def sa góorgóorlu bopp ba xam ko lu ca bokk. Hmm. te wax dëgg yàlla am nañ jafe-jafe ñaar ñaareel bi mooy. Brésil fi ëpp Sénégalais ci fi ëpp Sénégalais ci Brésil mooy fu ñuy wax São Paulo capital économique bi. ambassade bu Brésil bi ma nga nekk ca Brésil yaa foo xam ne kenn néew fa. Brésil maanaam distance yi sorente nañ sorente yoo xam ne tey boo soxloon ambassade bi da ngay xëy man fi ma dëkk par exemple. ak ambassade amu leen consulat am. tey fi ma dëkk tey bu ma doon dem ci ambassade ba dinaa daw daanaka ñaari fan soog a egg. te da egg doo sax dugg ci ambassade boo demee ay brésilien nga fay fekk ñu toog. mais loolu est-ce que est-ce que yéen bind ngeen bataaxal ngeen euh, jooytu ko fenn. waaye jooytoo nañ ko jooytoo jooytu bi bëgg a dee ambassadeur bi sax ñëw na fi nit ñi wax nañ ko lu nekk lu nekk de man fi bi ñu fi mujjee xolal bi ñu fi ñëwee di defar ci passeport yi maanaam ci gàttal li ma la bëgg expliquer hmm. passeport yi bu ñu fekkante ni Brésil loo xam ne lu mat deux mille personnes dañ fay nekk hmm. euh, São Paulo par exemple ñu ni ñuy defar passeport yi bu ñëwee ñaari fan lañ fi am nga xam ni ñaari fan yépp ñi nekk ca fii la ba di di di di defalu seen passeport duñu jël mat quatre cent personnes kooku du mm-hmm. loolu du ak yàq mm-hmm, dëgg mm-hmm. nga nga xam ne dañuy jógee dëkk dëkk man bi ma jógee di def di defar la sama passeport def naa neuf heures de temps ci yoon yi bi ma eggee def naa fa ñaari def naa fa daanaka fan boo xam ne ni bëgg a dugal sama passeport passeport bi ba léegi mu jot ma nga ñu bàyyi Brasilia São Paulo dëkk fi nga xam ni maanaam la mooy capital économique bi nga xam ne léegi léegi léegi léegi ci wàllu compal bi moom ci xaalis yéen ñaat lañ leen yónnee. non wàllu compal gi man damay dégg nit ñi wax ak kat bi mais mais douze milliards yi douze milliards yi dañ ko dañ ko séddale ci dëkk yëpp. ah maa ngi dégg de démb rek bi may seetaan TV Argentine. Hmm. ñu naan buñ doon séddoo tey xaalis bi kenn ku ne dina ci am mille deux cent CFA. waaw mille deux cent CFA yow boo demee jënd ci am Ah, mais euh, mais yéen yéen defe naa ni organiser wu ngeen foofu ba am fa ay daayira parce gis naa ay bésu xasida ngeen ko fay def kilifa diine yi ah. commencé nañ fa ñëw di ziar. association itam ah. xanaa war nañ fa taxaw. waaw ñun am nañu association. léegi nag léegi nag léegi nag léegi nag euh, euh, li lii saafara si mooy. ni hmm. collectif yii di juddoo fi mu ne nii dëkk boo dem collectif diaspora bi ñëpp taxaw nañ mais ngeen bokk ci collectif yooyu tey jii. Euh, euh, euh, maanaam indi ay numéro parce que nag maanaam loo gis rek maanaam nuñ koy wax ti wax moom da ngay indaale matériel moo ko gën dëkk yi ngeen recenser nit ñi parce que tam dafa jaadu ñu defaat une cartographie de l'immigration sénégalaise mais bu ñu toogee ku nekk di wax dëkk sàngam dañuy indi sur la table ce qu'il faut parce que tam bu ñu toogee dëgg la Brésil bokk na ci dëkk yi mu ñu mujjee commencé immigration mais léegi bari na sénégalais yu fa nekk. Mm-hmm. waaye nag la ngeen di war a am du du doon loo xam ne dañuy ñëw rek indil leen ko xeex la boo xam ni yéen a koy am ñun ñii fii ñu nekk par exemple ci toskaana mais am nañ fi mm-hmm. ñaari consulat consulat mm-hmm. nga boole ci consulat bi nekk Genova dëkk yi te loolu. du lu ñu toog ay pétition la ñu bind. dem ci dëkk yi association yi organisé wu. ñuy ñuy ñuy dem ci réseaux sociaux yi. Euh, di di di interpeller politiciens yi loolu nag. Oh. boo ko deful euh, day xaw a doy waar sëñ Pape. Oh, waaw dëgg la faaw ngeen euh, am nu ngeen àndee dajaloo. Oh. benn ngeen am benn donnée statistique. ndax lool buñ ko bàyyee ci loxo autorités yi dana jafe pour ñu def ko ndax ñuy Brésil ak Argentine dañoo nekk dëkk yoo xam ne ñu ci bari. ñu ay Cap-Vert ak yooyu. dañuy jaaree noonu dem xam nga euh, ñooñu ñu ci bari dañuy dem ñuy ñii du ñu am këyit ñenn ñi am na beneen façon bu ñuy duggee. Mm-hmm. ak yu mel moo tax day day jafe pour nga pour état eh, eh, organiser leen ci wàllu woowu. dëgg la association yi nekk ci gox-goxaan yi. Mm-hmm. dañu def benn cellule bu mag boo xam ne dañ cay dajaloo. Oh. bind bataaxal bind ko ministère. Euh, des affaires étrangères wax ko mu transférer leen consulat ba xawma ambassadeur ambassade ba oh. foo xamante ni dana yemb ci yéen ndax tey jii ñun Italie am na nañu problème bu mel noonu oh. ndax ki nga xam ni ma ngay jóge ba Sardaigne par exemple bu naree ñëw ba Milan dana def ñaari fan oh. ci yoon wi waaw waaye euh, bu bi ñëwee xëy na benn yoon lay ñëw euh, chaque ñeenti at waaye yéen bu fekkente ni kenn boobu ngeen am consulat boobu dong ngeen am Euh, ambassade boobu ngeen am amu consulat ci diggante yi fay nekk un problème. Mhm. faaw ngeen dajalo bokk xeex lolu parce que c'est droit la du lu ngeen koy ñaan. seen mhm. droit la. Mhm. seen droit la parce que yeen yéenay fay fa consulat bi nekk. ñeen yéen la leen di fay ñom ñooñu di fa liggéey. bu fa nekkee tay di fa liggéey c'est grâce à vous. kon dajalo len ci ci yoyu ngeen bind bataxal yone ko parce que je pense que il faut que à partir de maintenant diaspora bi mhm. wara commencé wax deug yalla di di revendiquer di prétendre li nu mom hmm mhm. hmm demande rien ñaanu ñu kenn dara mais li nu mom rek nañ ñu ko jox ma sha Allah aw ci gatal lool nga wax deug la mais fi ñun par exemple man yaakaar naa ne fekkente ni walu nguur gi ñoom dañoo ñëw ci dëkk xam ne mbir yee demee peut ñun lu ñuy def ñun suñu daayere bi ñoo koy def fii bu fi nit amul nit ku fi faatu. daayere bi ñu dajale suñu. loolu loolu sëñ ñang loolu fépp la kooku la loolu yóbbu ko. yaa ngi dégg. Hmm. boo boo demee annoncé tey ci ambassade ba ni am na ko faat ni ko bëgg yoon dan lay xaarloo ba da ngay mujj maar ba ñun dañuy mujj dajale suñuy juróom ak suñuy ñetti dërëm yóbbu néew ba yaa ngi bërki déem moo njaay rek leen suul nañ fi ñaari nit ñoo xam ne fi fi lañ faatoo bërki démboo moo njaay yaa ngi dégg ñoo xam ne dañ leen fee mujj def te loolu mi ngi fi doog am yaa ngi dégg waxuma la dara waaye tëj gim tëj Sénégal bu mhm. nit faatoo te yàlla tere nit ku nekk fa nga dem da nga faa daani doole dugg ko fa waaye gone bu fekkee dafa génn dem wuti bëgg a daw dugaatub réewam nga tëj bunt ba kooku lor nga ko mhm. yaa dégg yooyu ñun wax dëgg yàlla war nañ cee dimbale ñun daal ñu ngi leen di ñaanal jàmm. tey ñaan suñu kàddu fekk nañ leen ci jàmm. jërëjëf tey ñaan ci barke Serigne Touba. yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla bu leen dara fànq yàlla bu leen dara yàqal. amiin tey bëgg nañ lu maanaam lu ngeen di laax ngeen di ci laaxaa ngeen di ci laaxaale ñun waa Brésil bëgg nañ ku ñu ciy laax lool. waaw waaw maanaam fexe leen ba fexe leen ba ñu xam. ñu xam tey jii bu ñu xamoon ki nga xam ni moo fa yore wàllu loi seen nekk fa sénégalais mais mën nañ di dégganteeg moom bu diaspora amee parce que nag diaspora bi yàlla dafa dogal ñun ñu féete fii ci itali waaye diaspora lay lay wuyoo tey jii fu am jafe-jafe bu ñu fa mënoon yegg dañ fay yegg waaye tey jii man mii ku ma fekk fii ma nekk fii ci Toscana bëgg wax loi bu xew São Paulo wala Brésil euh, di nga mën mhm. a yaa sob wala Pape Makhtar euh, nit ki fa mu nekk moom moo xam tey jii gis nga yaa ñu yaa ñu defal benn benn benn benn benn yaa jàngal am nga loo ñu jàngal ci Brésil loo xam ni xamuñu ko woon donc il faut ngeen di dugg léeg-léeg ñi nekk ci dëkk yëpp sëñ Jaja moomu nekk fële Argentine bu mënoon dugg moom it wax ñu xelal ci ci ci ci ci ci ci man dama yaakaar ni xaalis bi xëy na waa waa waa Amérique ak Argentine lañ ko jox. parce que euh, ñu ñoruñu dara bu dee yéen mille deux cent am ñun daanaka amuñu ñu ma doon sama sama bu laaj tey man sama xalaat ci xaalis bi. Hmm. tey bu ñu ma dama naan xaalis bu ko sax jéem a séddale bu fekkee am na lu fi ñëw laa ko hmm. ko jël teg ci association ginnaaw ku amee jafe-jafe. loolal la la ko jël loolu moom du xel loolu moom du xel. <laughs>

Euh, waaye waaye wax dëgg fa yàlla xaalis moom boo ko fi indee daanaka pëcc xool rek ngay indi jërëjëf. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax te nuyu bu baax suñu mbokkum taalibe Modou Mbaye Thiam. jërëjëf. Modou Mbaye Thiam sama xarit bu baax bu nekk foofu moo xam ne ñooñu bokkoon daara jenn daara ju nekkoon. dëgg la la jërëjëf jërëjëf. jërëjëf sëñ Pape di ziar bu baax. Pape Matar dafa mel tey vidéo bi xaw na indi tuuti lu bees dama gis. Euh,

ca dëgg-dëgg euh, euh, ñoom dañuy suivre soxna Sely mi ngi nuyoo sëñ Assane mi ngi mi ngi mi ngi laaj nu ñuy intervenir xam naa. soxna Marème mi ngi mi ngi doon buuxante waaw léegi euh, dañuy fàttali rek ni képp ku bëgg ku bëgg ku bëgg a ku bëgg a dugg da ngay woote ci Skype bu rajo Xassida online. Euh, ñu ñaan nag nit ñi ku dugg rek boo paree nga mun a nga mun a mayaat sa moroom mu génn mu mu dugg participer sinon dafay dafay dafay xaw a dafay xaw a dafay xaw kii sëñ Cheikh mangaan moom it ndeysaan mi ngi woote ba tu mi ngi mi ngi mi ngi mu ngi nuyoo ba Touba waaw tey jii mel na ni gars yi daal sëñ bi euh, sëñ Modou Diop impoli euh, mbokk yi daal mel na ni kii plateforme bu bees bi xaw na leen xaw na leen ci ah, daal yow it Baye Fall Baye Fall kenn du moom ko kay ah. du ko ñaanal rek. daal moom mat a moom mat a ñaanal vraiment Baye Baye ah. Fall daal <laughs> sooy bu ànd euh, nañu ñaanal suñu technicien bu Baye Thiam ndax kooku moom mooy yor lépp vraiment mooy innovation yi moo koy dugal xam nga mais mais Pape bëgg naa gars yi ñu ma si interpellé te nag mënu suta dem te waxtaanu ci. Mm-hmm. ànq laal laal lu tuuti. mais nekk na un thème boo xam ni ah dafa mel ni sëñ Assane dugg na salaamaaleykum. xam nga salaam. waaw xam naa boo fayee sa live rek retour bi ba a ñëw sëñ Assane. waaw d' accord. la présenté ko. salaamaaleykum. waaw eh, sëñ Assane ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi bu baax. naka naka wa campagne wa sant bu baax ñi ngi ci jamm sant bu baax alhamdullilah ñu mbokk talibé la bu nek campagne bok ak ñun euh, liggéey yu bari mhm. euh, di nit ko am disponibilité di taxaw sénégalais yi nek euh, di campagne bi fofu yépp mom mhm. ak sunu yeneen natang yu melni pierre mhm. ak daouda ma ñu leen di ñu leen di jaajeufal ci liggéey bi ngeen di def Mhm. jërëjëf jërëjëf mhm. yéen la ñuy remercier vraiment di leen jaajëfal ci li nga xamante moom ngeen di def mu mhm. doon loo xamante lu am solo la ci sénégalais yi nekk ci diaspora bi ak rawatina nag période bi nga xamante ne ci lañ nekkee euh, mu doon lu am importance doo xamante ne sénégalais yi mën nañ ci indi seen xalaat fépp fu ñu nekk rek ci àdduna bi. Mm-hmm. li nga xamante ne moom moom mooy xew-xew jamono yi mm-hmm. mm-hmm. waaw bon li man li ma li ma ciy gën a euh, jaaxal ci li nga xamante ne moo am ni muy xaalis bi nga xamante ne moo ñëw déjà ñoom Sénégal bi ñuy jénnee dañ ne douze milliards yi moom lañ jénnee pour extérieur kon yaakaar ne fii Italie lu li fi egsi ci xaalis ñoom war nañ wax ne li tant somme bi moom moo egsi fii fii nii ci biir Italie bu ñu bëggee bu ñu dee def seen communiqué wax ne somme bi moo egsi nii si biir Italie te it nii lañ ko nii lañ ni woowoon auparavant ñi nga xamante ne moom mooy euh, association yeeg euh, pré euh, daayira yi waxtaan ak ñoom ci ñoom nan nan nañ xalaatee pour ñu mën a Euh, sedd xaalis boobu avant tout avant ñuy ñëw ñoom jël seeni décision bopp rek sa kaw ñëw bëgg a décider ci ñi nga xamante ne ci lool ñooñu ci ñoom ci ñoom la loolu jëm si mm-hmm. bon li ma ci li ma ci man yaakaar naa ne tey bu fekkoon ne laajoon nañ Mody moo di eh, ñu si ëpp eh, eh, émigré yi soxlawuñ fi mu toll nii xaalis boobu nga xamante ne moom lañ leen di séddale nga xamante ne buñ buñ ko compee ku si nekk la nga ci am sax boo moytu du la matul dépasse jour dépasse benn jour mm-hmm. yaakaar naa ne loolu kon tey bu ñu laajoo nit ñi seeni xalaat ci nan lañ ko mën a séddale dinañ am yeneen solution yeneen yoo xamante ne émigré yi fi mu toll nii soxla nañ ku leen jàppale ci côté boobu moy moy moy logistique yi bi fi tolli par exemple fi ci eh, campagne bi. Mhm. tay bo fi soxlo won eh, passeport. yow da ngay pass dem Rome wala nga pass dem ba Milan. Mhm. ah tey xaalis boo te Rome boo fa demé mënuñu ñu lako defal parce que dañ koy def ci valise bi yobu ko Milan yaakaar naa. waaw mu ngoog même Rome da ngay da ngay Rome da ngay dem da ngay da ngay déposer rek mais ñom da ngay yobu Milan voilà non la demee mhm. mais. tey fii tey ñu bëri buñ bëggoon a tey déposer passeport dañuy perte minimum nañ perte trois jours ci seen ci seen liggéey. Mm-hmm. parce que di nga jógee fii train bi fii ak day sori. di nga di di nga fanaan ci yoon bi. Mm-hmm. douze heures de temps. dëgg la boole waaw boole kaak perte sa perte sa liggéey perte perte sa liggéey heure ndax permission yooyu. Mm-hmm. yow ngay jël ci sa ci liggéey munoon nga ko conserver pour pour li booy dem Sénégal wala pour yeneen mais tey boo naree perte temps boobu dem fii ba Milan pour déposer benn passeport yaakaar naa ne tey xaalis boobu buñ mm-hmm. fekkoon ne waxtaan nañ sekk surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoom niñ ko séddalee ku nekk consul bu nekk ñu ne yow yaa géré loolu ñun moom fas yéene nañ fii ci campagne bi bis bu ñu toogee si conseil bi nga xamante moom mooy conseil Naples ñun xaalis bi fas yéene wuñ di ko jëlee noonu ñu koy séddale nii ci ci ay kaay jël fii euh, loo xamante ne du la matal sax ne kii am nañ yeneen yoo xamante ne foofu la gën a doon farata si ñun ndax tey fii boo boo xëyoon rek comme ni ma ko expliqué sànq doon doon dem Milan yow tey di nga di nga ci dépensé rek ci financé ci ay paas lu ëpp cent cinquante euros mm-hmm. pour pour passe dem aller retour boole kaag perte sa temps liggéey perte perte perte sa lu bari te passeport bi mm-hmm. sax boo moytuwul da ngay fay foofu pour ñoom ñu ñu doog la ko envoyé te léegi loolu sax ñoom nangoo nangootuñ ko def nga fay mm-hmm. nga fay foofu pour ñu yónnee la ko par poste mm-hmm. kon ñun xaalis boobu côté boobu lañu gën a doon yitteelee que ñu ñu koy jël naan dañ koy dañ koy séddale ak <laughs> dañ koy séddale ñoo xamante ne dañoo jógewoon woon Sénégal ba pare ñëw ñëw ñëw bloqué wu fii mais ñi jóge woon Sénégal ñëw bloqué wu fii mais ñi leen hébergé nag ñoom kon ñoom nu ñuy def <laughs> bu fekkee ne dañoo dañoo calculer rek ne dañ koy jox ñi nga xamante ne dañoo jóge woon Sénégal ñëw canki Italie ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen hébergé seen kër yi te instant bi doon jaay amatuñ loo xamante ne moom lañu ñu moom moom moom amatuñ benn source de revenu ndax fi kon di lépp lañ tëj dañu doon jaay ba pare kële jógee Sénégal yow nga dalal ko sa kër war koo jàppale léegi yow ñu jël xaalis eh, jox kële yow mi nga xamante ne da nga doon jaay jaayatoo liggéeyatoo defatoo dara yow kenn sóoraalewul la ci kii mm-hmm. waxtaanu ñu nit ñi dañoo dañoo jël seeni décision bopp bëgg ki xaalis bi war a war a dugg ci ay loxo yoo xamante ne yeyoo wuñ ko jaar foo xamante ne war waru faa jaar noonu rek man noonu laa ko gisee. waaw jërëjëf jërëjëf Assane jërëjëf. lu mu bon bon euh, euh, ndimbal yi nga xamante ni demoon na ci commune yi. Mm-hmm. Euh, sénégalais yi quand même ñi nekk campagne euh, bénéficié wu nañ ci quand même. waaw waaw waaw loolu moom dëgg la loolu moom dëgg la mais non li nga xamante ne ñun lool loolu wax réew mi moom. lu ñu mën a jàppale ci seen ci ci émigré yi ñoom jàppale nañ ko def nañ seen mag sëkk mm-hmm. mais ñun suñu réew ñun li nga xam lan la lañu war a jàppale Assane waaw maanaam xam naa laaj bi bi ma yaakaar ni pap moom la la bëgg a laaj mm-hmm. mooy euh, mécanisme euh, de distribution bi nga xam ni mm-hmm. moom la interlocal yi di def waaw wax dëgg fa ñun suñu dëkk yi vraiment je lance un chapeau aux associations de de euh, euh, la communauté sénégalaise. On accompagnons les sénégalais pour man Les mhm. sénégalais sont en règle sur le mhm. plan résidentiel. Mhm. Et amuñu ci parce que euh, bonus PG mais bonus normal est-ce que a une accès. Mhm. par rapport aw service yi ak euh, yëf yi mi ngi ñëw mi ngi dellu fii ci sénégalais yi def naa Pape loolu nga ñu nekk zone bi ñu nekk campagne bi. Mhm. dafay ay irrégulier aussi. si si man sens boobu laa koy campo yi di récolter yi quoi. waaw euh, am fii euh, ay association yu mag. lu demee ni que association bi nekk Napoli bi bi nekk Caserta bi nekk Salerno tey am nañ benn groupe WhatsApp boo xamante ne daanaka euh, sénégalais yi nekk si campagne bi bu ma newul ñëpp a ngi ci tamit ñu bëree ngi si kon saa dara xewee loo xamante ne dafa jëm ci biir sénégalais yi fii ñun dañ dañ koy joxe si information boobu si groupe yooyu bu ko defee mu jox leen information yi leer nan la ñuy amee accès ci li nga xamante ne moom la euh, euh, communes yi di jénnee lan la ñuy amee accès ci li nga xamante ne moom la région ne campagne bi jénnee euh, te ñoom ñu ma war mën a jot kon sénégalais moom fii moom wax dëgg yàlla am nañ information que tew te ñu si bëri tamit ñi ngi ci ñi ngi ci déposé ci ci loolu parce que par région ne campagne bi rek par exemple ñi nga xamante ne ñoom ñooy venditeurs ambulante yi ñoom ñu ngi leen di jox benn uno tantum boo xamante ne deux mille deux mille euros la non. ah bon eh, waaw deux mille xam nga xam nga nag. Mm-hmm. Pape loolu dinaa ci dellu si. ndax gis mm-hmm. nga euh, euh, maanaam région yi. Mm-hmm. seen délibéré yooyu ñuy voté mi ngi dofloo Sénégalais yi. ndax boo xoolee région de Ligure. bokk na ci njëkk a def ay provvedimento di sostegno. maanaam. Sénégalais yi def ko ay file audio WhatsApp. Mhm. di ko yónnee man damay toog kenn ku nekk yi di ma lii la bëgg a déposé ma ne ko mais xoolal lañ ci bind. régionné Liguoré lañ ci bind. waaw waaw. Mhm. jii dafa am compétence yoo xam ni dañ ko jox région yi. waaw région bu am compétence yu jox commune yi tey jii boonu boonu spécialisé yi. mais mhm. commune yi ñoo koy gérer. ba ci afito yi mais am na yenn xeetu bonus. lu mel ni case intégration interurbaine yooyu. tey jii compétence yi région yi ñoo ko yore région bu nekk ak la ngay def délibéré mën na 2000 euros yooyu tey jii sénégalais yi nekk Napoli. Ah, ah. bokk ak sénégalais yi nekk Toscana ñun Toscana amaguñu système boobu nga xam ni dañ ko commencé def xëy na ci ci ci phase doué bii ñu ñëw. nga xam ni war nañu voté waat yeneen beneen décréto war nañ ko mm-hmm. mën a def. mais mm-hmm. actuellement nit yi li nga ñi dëkk Abruzzo bokk ñoo ñi dëkk Toscana bokk ñoo ñi dëkk parce que fii dañoo am ay compétences transférées yoo yu bari dañ koy réeree réeree réeree waaw loolu moom loolu moom loolu boobu ñun am nañ ko fii si région ne campagne bi moom xam nga fii moom euh, jaaykat yi ñoom ñoo fi ëpp ñu yor partita IVA. Mm-hmm. région ne campagne bi dafa jënne euh, kii boobu décret boobu nga xamante ne ñi yor partita euh, IVA yor école imprese yi mm-hmm. ak uh, artisanat ak artisanat beeg yooyu mm-hmm. dina leen jox unotantum boo xamante ne eh, deux mille euros la lool suba incha allah si la ñuy commencé si la ñuy commencé ab demande yi sayer bul changer résidence de <laughs> ah ak cee gaaw soriwul foofu sax temps yi. soriwul wut domicile yoon Napoli. Eh, non instant yi soriwul foofu. soriwul foofu waaw même léegi yi ñu euro yi tamit mën nga mën ñu ngi ciy dugal xam ñi ñu dugaloon ci indemnité seicento euro yi. yàqalu leen dara tamit ñu dugal tamit ci eh, bonus una tantum bu deux mille euro yooyu. Eh. kon li li may wax rek ne ni réew moom li ñu war li nga xamante ne moom lañ ñu war a taxawoo moom Sénégalais yi bon vraiment taxaw nañ mais ñun suñu côté li nga xamante ne moom lañ soxla si suñu gouvernement mooy bu ñu bëggee sox bu ñu soxla ay kayit dem si consul bu Napoli mën ko fa am pas ñuy dem fii ba Milan dem pour pour mën a defar passeport wala nga mën a lijjanti yeneen kayit ñun daal lool mooy suñu problème moom ci ci ci.

Salou. Mwen yi gis a yi bi rusele gale di def. Mwen gis nan akok hamni. Fede m depoze bon bi. Mwen jok pou bon yop. Mwen jelat bon yi. Jok e wak ko chis pez a sorilare. Pou gari. Tougoukou. séddale ko ñu ko ñu ko soxla vraiment geste de générosité le boo xam ni ay nit yu liggéey ci par exemple centre logistique yi ñu jox leen ay. supermarché yi ñu mën mais non le ñu jëlee jëlaat ko du coup, du coup, ko di ko sénégalais ndax nag wax dëgg fa yàlla euh, Pape xaw ma ndax yegg si na ci yow. amna sénégalais yi commencé am jafé euh ñi am risque contre yo xamni parce que nak buñu démé bay am ay euh, surtout famille yi nga xamni dañu dañu takalé tàqalekonte ñi nek fa la ñi nek fi ñu dem balay wax ay exigence yu jënd panolino ndax nak am nak ci communauté bi il faut ñu xam ko euh, du lepp mo nek en or jamono yi am ño xamni wax deug fa la dañ lay wax carrément man di semaine bi sama meew doom jeex na wala bok panolino parce que panolino

Eh, eh, secteur agricole bi di ñaxtu parce que jamono ñi ñu xam nañ ni stagionnaire yi dañ daan dugg si nekk ci dëkk bi ñu am mm. exigence par exemple ay récolte yu bari maanaam tool yi euh, mm. li fi daan ñëw ci liggéeykat euh, mm. du rek ay sénégalais parce que ñëpp xam nañ ni pays de l'est yi ñëpp nga fa euh, dafa daan am benn benn demande bu forte bu daan am boo xam ni nit ñi dañ ko daan soxla tey jii demande boobu nekk na Euh, benn handicap boo xam ni dem nañ ba taxaw parce que avant ñu doon euh, lii di émergence la Lamorgese Lamorgese sollicité woon na pour ñu def une euh, benn sénatoria léegi nag sénatoria bi mi ngi gën a nekk une exigence Chigel Chizéwil dindi nañu benn communiqué wax ni ñu ngi demander. officiellement état bi pour mu pour mu pour mu euh, euh, def li nga xam ni mooy régularisation yow mi nekk ci secteur agricole bi ban ban ban ban ban ban nga am. waaw xam nga euh, ñun déjà dañoo ñun ñu nekk ci dans le secteur de l'industrie alimentaire agro-industrie bi déjà dañoo dañoo dañoo njëkk a jóg sax confédéral bi. Euh, parce que nécessité bi ñun ñoo ko njëkkoon a sentir daal parce que gis nañ ni agriculture am na jafe-jafe yooyu te doonte jafe-jafe yooyu ñu ngi fii ñu gis ni parallèlement dafa am euh, ay liggéeykat yoo xam ne ñu ngi nekk ci géeto yi mooy boo demee ay yenn géeto yi ña nga fa nekk dajaloo fa. ay jaag yooyu. ay fojaak yooyu mën na nekk benn facteur de de de euh, contagion ñoom ñi ñuy nekkee noonu ci seen biir. Mmh. Alors, euh, en ce sens, on s'est dit que pourquoi ñuy euh, un problème mu séminaire am problème piantumazione am problème mu raccogliere. Mmh. parce que la peur moo nekkoon que ni Italie mën na toog ba benn moment frutta wala verdura sax du fi am. Mhm. Euh, ñu ne donc ñu régulariser ñi nga xamante ni ñu ngi nekk ci ghetto mhm. après nag ci un thème vraiment central. Euh, confédéral bi jël ko en main. Mhm. sax moom noonu la confédéral bi def def un appel. Mhm. à au gouvernement. Mhm. Euh, ñenn ñi ñu ngi proposé ku mel ni samedi ji par exemple mi ngi pour que ñu def voucher mais ñun accord ñu ci voucher yi. Euh, li ñu bëgg mooy ñu régulariser leen. Euh, ministre Bellanova moom ci boppam xalaat bi mu wax mooy ni que ñu defal leen permesso di soggiorno stagionale yi. benn bu un un an bëggoon waaw renouvelable però et renouvelable parce que mm-hmm. man d'accord naa sax ñu defal leen mais en aucun cas ñu régulariser leen sax au moins parce que boo leen régulariser dina leen permettre au moins ñu am yenn accès ci yenn euh, yenn yenn yenn af services yi ak yenn affaires yi mm-hmm. bu ko defee ñu mën a utiwaat après beneen liggéey mën a convertir ce permis de séjour dugal ko ci yeneen xeeti permis de séjour mm-hmm. bokk nag dafay nekk oxygène ci Italie ndax vous a 600 000 nouveaux permis, 600 000 nouveaux travailleurs, yo xamni febaru té dañuy verser correctement les taxes ci jamono crise bi oxygène c'est du sang pur dafa melni rek nga dem banque de sang bi retirer un ay camion au sang non mais mais seigne bab seigne bab lolu gis nga bon, amé une vision un projet sur l'immigration euh lolu mom nous nul le sens contraire Madame ñun yow quel est le rôle de notre secrétaire général des Sénégalais de l'extérieur ne sais pas. Je ko sais pas. Moïse Sarr waaw Moïse Sarr waaw. c'est bu ñu la quel est son rôle yow xamoo ko man mii xaw ma mm-hmm. je pense que son rôle c'était de définir Madame, def créer au moins parce qu'il est jeune. peut-être mm-hmm. qu'il a été aussi. Euh, immigré autant comme ñun mhm. donc waroon na indi benn projet de société migratoire boo xamante ni dinañ créer ba ñu am benn base de données loo xamante ni amu fi woon euh, mais à aucun cas euh, Italie au moins dinañuy am vision yooyu si immigration donte nag amuñu foqati boo xamante ni da leen di obligé par force pour ñu def ko mais xam nañu ni l'économie mhm. commerce économie sommersa bi li muy gangrené ci ay milliards yoo xamante ni kenn du xam fu muy jaar kenn du xam fu muy dugg alors que ñu mën koo régulariser mhm. ñuy liggéey tranquillement honnêtement guadagnare honnêtement secondo contratti nazionali yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk mhm. donc je pense que loolu moom mooy projet migratoire mais bu fekkee da ngay toog di seetaan rek waa diaspora bi lu ñuy def ñoo koy defar seen bopp bu fi néew wàññee ko ñoo yóbbul seen bopp bu fi koppar duggee euh, dañuy décider à leur place donc il faut que nous am raison garder tout ñun aussi mhm. nous mhm. c'est très important c'est très important parce que dans la dislocation mhm. ñu continuer dëgg la dëgg la dëgg la man de man de defe naa ni euh, ma après ma jox yaay faal kàddu gi euh, semaine bi yaakaar naa ni am naa yaakaar ni waruñu ci génn te région yëpp amuñu kaddu boo xam ni dafay fédéré doon ñu ne région bi kat mbooloo mi moo fa nekk ndax nag waruñu d'accord alal bi euh, maanaam alal ju bari ji dugg fi On a des jox nañ ko nangam mu wara dem milliards de ci na ci ni wala dem na manam war nañu mëna dal am go xamni tay ji euh ndax nak ndax nak euh on a des choses beaucoup plus sérieuses que ces 12 milliards de divertissements yo xamni dañ ko tassaré ci ci ci ci bi mu ay miette états-unis 118 000 dollars lañ fa 118 000 dollars ci 52 nations qu'est-ce que ça représente loolu loolu dafa mel ni dafa mel ni nit ñi seen dignité la ñuy piétiner waaw ndax na koo xam ni yow mais mais ku ko koo tane ngay dimbali mais yow mënu ku la tane yow nga ne yaa ngi koy dimbali. Mm-hmm. dafa nekk lu doy waar daal. yaay Fall jot nga sa waaw man jot naa yéen lay xaar sedd leen <laughs> waaw mais Pape gis nga fi nga daaneelee foofu lay commencé maa ngi leen di nuy yéen ñëpp di leen ziar. di leen ñaanal delloo ziar ñu ngi delloo ziar. mais gis nga c' est douze milliards de problème douze milliards yoo xam ne nee nañ sax yokk nañ ko ba quinze te loolu sax waruma mais yow ke yow rek laay dégg ngay wax quinze. non non même tey dafa am loolu leen jàddal. non Africa 7 tey seen plateau ñu ngi ko doon wax nee nañ yokk nañ ko quinze milliards. donc je pense que lu toll ne Africa 7 xanaa loolu du ko du ko du ko sos mais loolu la ñu wax mais. Mm-hmm. loolu yëpp sax intéressé wuñu parce que man je pense que 12 milliards nga dugal ko ci diaspora dafa mel ne une goutte d'eau la mer. Mm-hmm. te fi nga terminé lay commencé parce que diaspora bi amuñu koy ñu suñu suñu biir association bi mi ngi xeex daayira bi daayira mi ngi xeex association bi. te man je pense que il faut ñu am benn retenue am benn trait d'union boo xam ne. moom mooy dox suñu diggante autorité parce que même euh, euh, lu mu tudd l'ambassadeur li mu def c'est très grave c'est très grave parce que ku on ne ambassadeur ngay véhiculer un message mais da nga war a bind réunir sa cabinet ñu bindal la notifier ko nit ñi mais nga def vocal mais c'est du jamais vu dans l'histoire c'est du jamais vu parce que yow mën nga bind notifier ko ñi ko war a jot jot ko mais nous ne comprenons pas. Nous ne pouvons pas interpréter. Nous ne pouvons pas interpréter. Nous avons pris le péril. C'est grave. C'est grave. C'est mesurer où nous avons des conséquences. C'est mhm. grave. Et en mhm. plus, nous sommes au Sénégal. Nous avons gagné 1 000 milliards pour débarrasser le côté COVID. Mais 1 000 milliards, ce ne sont pas des sous qui sont en place. Nous avons des outils. Mhm. Et en plus... douze millions et cinq cent xaw ma quinze millions diaspora bi benn milliard lañ ci génnee jox ko diaspora bi un milliard la ah, ñu génnee. ah ak soixante neuf yi ñu jëndee ceeb ah. attention non non soixante yi ñu jëndee ceeb. Sénégal jox ak macaroni. non non non xaalisu diaspora bi Pape un milliard lañ ci génnee milliard yooyu. Mhm. 65 millions. ah ok d'accord je comprends 1 milliard ñu 12 12 milliards d'accord d'accord d'accord je suis en tant que diaspora italienne 65 millions la 65 millions nous 30 millions de Lombardie. 65 millions Lombardia c'est CFA. 65 millions CFA la 30 ah, millions déjà lombard nous ñu jox leen 30 millions c'est do bouquet nous avons nak xara rek ñu jox 20 millions hmm napoli ñu jox leen 15 millions moy 65 millions yoy ma la limal napoli c'est 2000 euros ñu mais légui man je me demande mais le ministre de l'intérieur avec quel toupé muy tok di décider ci place le euh, diaspora lan la xamal diaspora <coughs> décider ci place diaspora diaspora bay décidé naan ku amoon ku dee nañ ko jox ku dee ci Covid wala nga dee ci leneen nañ la jox 2000 euros kii tagga témbe mais ki tagga témbe lu tax ñu koy jox 500 euros. mais hmm. kii tagga témbe suñu yoon nekkul ci moom parce que am nañu tagga témbe Sénégal te waxuñu ñooñu te fii fii la ñu dëkk Italie di liggéey. ñi tagga témbe Sénégal nga xam ne dee sont des des des des des immigrés yoo xam ne fii la ñuy liggéey en Italie dem Sénégal hmm. tag fa bàyyi seen njaboot fii. liggéey ñu foofu xamuñu ndax dinañu leen dugal case intégration amuñu maladie amuñu dara mais ñooñu ñooñu dañ leen a war a jël en charge mais ki ñëw fii ñëw kër Marème Fall mu hébergé ko di ko jox mu mhm. lekk di ko jox mu naan mu taggatémbe fi fii fayul hôtel deful mhm. dara nga jël 500 euros jox ko mhm. ki nga xam ne nag daf fi bàyyi njabootam njabootam di sonn moom mu dem toog Sénégal yow joxoo ko dara ki nga ne dafa feebar ci coronavirus mais kooku am na maladie dëgg dañ koy fay maladie lu tax nga bëgg ko jox 500 euros moo tax ma ne la xamuñu sax lan moo xew fii dëgg la xamuñu ko. Mhm. xamuñu lan moo xew fii ndax bu ñu xamul. yaay faal yaay faal taxawal foofu bu fekkente ni ku am coronavirus liggéeyul nag IMSS ko fay. waaw mais ku am coronavirus te liggéeyul. ku am feebar bi te liggéeyoo dañ la mettre en quarantaine kooku IMSS du la ah. fay parce que liggéeyoo woon. moo tax ma ah. ne ce sont deux cas divers ñoom xamuñu sax cas yi parce que tey jii mhm. bu ñu bu fekkoon ne commission boobu. xam nga commission bi ñu créé ñoom Sénégal ba décider loolu suñu député yi ña nga mais député yi xamuñu réalité bi wàccuñu si terrain bi xamuñu base bi. dañu mhm. waxante dëgg. Mhm. ci télé yeeg rajo yi la toog di wax mais benn député xamul les réalités de la base xam nga réalité de la base yi kan moo ko xam les associations les daayira ñooñu ñoo ko xam. parce que ñooy régler les problèmes de la base ñooy dugg ci kër yi ñooy dugg ci famille yi ñooñu ñoo ko xam.

commission bi nar a juddu au moins euh, ñu fexe ba ñooñu mën a mën a jouer rôle maanaam acteurs yi nga xam ni ñooy nekk ñooy contrôler et puis ñooy mën a am poids defe naa ci ci li nga xam ni moom mooy wàllu séddale bi parce que nag phase un bi la ñu nekk des na phase deux un milliard la ñu séddale gum mu des douze milliards donc nañ leen nañ leen am nañ leen am ak mat goo xam ni dañuy taxaw wax l'État ce qu'on Pape d'accord avec toi, mais dama même cette première phase là nous devons am fit ak courage muy jàll sans pour autant associer pleinement la diaspora. encore mhm. une fois député yi représenté wuñu la diaspora parce que xamuñu nos problèmes réels. c'est tous des émigrés ah xam problème ce sont ce sont des émigrés. ay immigré xamuñu la réalité de la base parce que buñ ko xamoon duñu dem taxaw fële ñu leen di def loo ay commission mais ku ku xam ne dafa génn àdduna ci coronavirus nañ ko jox 2000 euros nga ne waaw kii nañ ko jox 500 euros nga ne waaw kii nañ ko jox 500 euros mais mais attention attention député yi xaaral ma pare woon ci répartition bi ñu woon ci kii commission yi euh, départ bi fële au niveau du ministère ñu nag ñoom ñooy am imprégné wu leen ne je regrette parce que non non non Pape Demba je regrette parce que biñu togué biñu togué ci plateau africain, nous avons ñoo confirmé que né convoqué nañ leen commission ba avec le ministre de l'intérieur ñanga nga fa woon. manam manam watal bu baax a confirmé que nous dañ leen jox des communications. mais pas euh, ñoom ñoo décider ndoo ensemble. l'état ñoo décider ensemble mais xam nga si yow soo représenté ay nit ñu ne la lii lii la nga nga këgg ci taabal ji nga ne lii duñ ko nangu. nañ leen dellu base ba ñu jëli fa ay ay information dëgg la dëgg la. nañ leen dellu ca base xam nga nit ki buñ la falee gis nga buñ la falee bu xeex jaree bu bu bu xeex jotee su meekul nga xeex ndax ñi la fal parce que lii ñu def bañ koy def mais Pape Demba ñaata ñaata père de famille ñoo fi nekk ñoo xam ne dañ doon ñaata dafa ñëw ñëw été été bi la ñuy ñëw dañuy am ni ñuy amee pour dundal seen njaboot pendant six mois. dëgg la. te ñun affaire bi nii jeexagul parce que nañu xool lii ñëw parce que fii deux mois la la situation sera plus grave que ça. yàlla baax na. la situation sera plus grave que te bu boobaa pour ñu gérer tey jii li ñuy wax ni tey jii ci régularisation bi nga xam ne syndicalistes yi ñu ko bëgg a def mais que ça soit la bienvenue parce que tey jii on a des jeunes yoo xam ne kenn mënu leen cadre fenn ay sénégalais yoo xam ne ce sont des immigrés mais mënoo leen dugal fenn amuñu carte consulaire dëkkuñu fenn amuñu fu ñu dëkk ñi ngi mel ay réfugiés ñi ngi dekk ci àll bi ñoom ñuy liggéey ci àll bi te ñooñu xamuloo foo leen di classé tey jii pour jox leen xaalis parce que xamuñu xamuñu fu ñu bokk mais loolu tam c'est un réel problème dëgg la dëgg la c'est un problème boo xam ne war wut solution la ñun di tooñ mooy mais man je me pose la même question parce que bu fekkee ne ñun ñu représenté mënu accord amuñu benn accord bilatéral boo xam ne mën nañu permettre ñu ne ñun lii mën nañ ko am fii wala mën nañ ko am xamuñu fu ñuy dem dañuy rek dem mais à la fin il faut nag xaalis bi source de division la encore une de problème la ce sont douze milliards ou quinze milliards de problèmes ñu ñu koy résoudre bu xool gan ñi bu ni am na am na ñuy gan de allo allo saint ñu ngi ziar bu baax dafa mel ni suñu jëriñ na de sëñ Ablaye <laughs> asalaamaaleykum. waaw waaw tey moom eh, eh, gisee bi mu rite lool sax. ah sama gars yi nag sama gars yi nag a. tey ah. ma ne yéen nag da ngeen a jamono ñu la jamono koy jiitu waaw leen góor. waaw jaar nag. ah moom de tarkal macha maa ngi lay ba. xam naa xam naa eh, na loo ci dégg. tey la tey la yàlla dogal gise bi. dëgg la gis nga de gis nga ndeysaan. lii de moom mooy mooy mooy xewal gi moom. Ah. maa ngi jaar baax di jaaree soxna ma dem ñu ngi jaar baax ma ni maa ngi gis mbokk yi ñu ngi insisté pour dugg ku mel ni sëñ Ahmed Ndiaye ah, Ahmed Ndiaye Mayibu mbokk yu bari ñu ngi woote maa xam naa moom nañu nañu taaxeelu rek incha allah dinañ leen xajal yéen ñëpp sëñ Ablaye bisimilah. ñooñu nag sëñ bi ñooñu nag ñooy ñooy priorité yi man moom. waaw waaw moom lañ fi nekkal. ñu doon ñu doon rek da nga boo ngeen mënee dugal ñooñu daal mooy mooy priorité. daal xam naa daal gis naa Baye fal ñoom Ameth Ndiaye mbokk yu bari ñu ngi woote maanaam ñi ngi insisté di woote te ñàkkul am na message yu ñu bëgg a joxe. maanaam am na mbokk mu nekk ci ligne bi sax am na mbokk mu nekk bu dugg ba ah, kon nañ ko dalal waaw dalal leen ko waa kay seen dalal leen ko. gisuma ko woon. salaamaaleykum allo salaamaaleykum. ah waaye sëñ bi yow moom ah sëñ Alioune la. Hmm. aywa salaamaaleykum wa rahmatulah. yéen bi dëgg ni mu ne boof ci biir ba ah. ci biir moom yéeme na bisimilah sëñ Alioune. waaw salaamaaleykum sëñ Pape. maaleykum salaam sama nijaay. jërëjëf. ñu ngi nuyu bu baax di nuyu mbok yooyu yëpp ñu ngi yéen ñëpp ñu ngi leen di ziare bu baax a baax. ñu ngi lay tey ñu ngi lay waxtaan vraiment boobu léegi ñu ngi koy teelu am na solo. Mm-hmm. te vraiment njariñ rek euh, defe naa ni lay jural askan yëpp ñu ngi ci ñu leen ci sant vraiment. jërëjëf. bon euh, man comme li ma waxoon rek suma propos yi moo waxoon keroog euh, dimanche passé. Hmm. laay réitéré waat encore. ñun suñu xoolee suñu gouvernement bi moom je crois que intérêt moom mooy que mu divertir les sénégalais surtout les sénégalais de l'extérieur. Hmm, hmm. pour il faut complètement le débat Parce euh, mbir on est tous des sénégalais. Mm-hmm. comme nous ko mm-hmm. division totale totale totale am. dëgg la. nous nous mm-hmm. gouvernement interlocuteurs li ñuy def ñi faut pas mhm. dire que mhm. euh, certain ou un euh, certain Amadou Ba les immigrés non xam bu baax li ñuy mhm. bu mais seulement nak seulement nak Donc li leen li arrangé. mais le alors le gouvernement sénégalais. n'a la le def man dam man xala na ci lu dama la ba mën a dimbali immigré yi nga xamante ni ñoo nekk dans la diaspora amul mënta nekk mhm. non qu'on se dise la vérité son liggéey mënta nekk nit mhm. boo koy dimbali déjà da xam na mu toogee mhm. dafa am solo dëgg la te nag le le problème nag moom mooy loolu mooy problème gouvernement bi dëgg la dëgg la encore encore encore damay demat encore waxat encore ana député euh, diaspora ana le vrai débat duñ ko posé jamais. dégg jamais. est-ce que mës tok toog nga dégg un député de la diaspora yëkkati dina tel propos wala tel euh, je sais pas comment nous ma ko mën euh, ko à l'assemblée mais ça c'est pour les euh, nous tous les immigrés de la diaspora. Moussa, D'info c'est toujours la débat li ma waxoon encore xaalis boobu ñu indi waroon nañ ko yemale tey Sénégal ndaxte déjà ceeb bañ fay séddale rek pëcc wala boo xamante ne kenn xamul mu toll kenn xamul nu mu toll mën naa d'accord tey ñi nga xamante ni tey wàcc nañ fi liggéey doon ay Sénégalais gouvernement ak ñëwoon ak maanaam taxawaay bu mat xool lu leen dimbali ci wàllu koppar xool nu ñu taxawee seen njaboot yooyu ndax am na ñoo xam dañuy génn àdduna bàyyi fi ay tuut tànk xool ñooñu ñu leen taxawee li Europe neexatul li amoon amatul constat disabilité ñooñu nga taxaw leen jàppale leen jàppale seen njaboot aussi tam la même chose mais soixante cinq millions en Italie lu mu zéro encore xaalis bi foo koy dégg encore ñoom ñoo koy séddewaat encore ñu les associations ou je sais pas euh, consulat ñoo koy séddewaat encore ñi nga xam ne ñoo ko waroon a laal dëgg duñu gis dara ngeen baal bu bugguma guddal mais vraiment man dama gis ni lii farce la quoi farce. jërëjëf jërëjëf Alioune dafa mel ni am na beneen mbokk mu nekk si biir sëñ Fallou. est-ce que génnul est-ce que génnul te yaa jox sëñ Ablaye. sëñ Fallou. mel dafa génnaat de. Hmm. waaw bisimilah sëñ Ablaye. waaw sëñ Pape jërëjëf maa ngi nuyu sëñ Aliou Guèye moom bu baax. waaw jërëjëf sëñ Aliou sëñ Ablaye koppar yegg si na ko. dégg naa yéen dégg naa mel ni sëñ Fallou dellu si na salaamaaleykum sëñ Fallou. allo. Fallou Ndiaye dafa mel ni sa micro moo problème yaa ngi ci biir waaye dégguñu kàddu gi allo. bu mel ni du génnaat de. waaw kon bisimilah sëñ Ablaye xaar ma joxaat la kàddu gi. waaw lañ ba ngay laaj ba am koppar yi yegg na. <laughs> ay dama dégg sant yaay Fall ni jox nañ leen trente millions. yaa kon xanaa kilifa yi ci kilifa yi la yegg. <laughs>

lu flagrant loo xam ne kenn koo gis. association des transporteurs def naan seen délégation dem ni leen ñun suñuy camion gratuitement leen leen koy jox. ñu ni dañuy woote appel do appel d'offre xam bëggoon ko la yóbbu rek. gratuitement cest donc lan ci waroon def mën naa dolleeku ci li nga doon joxe. te ñi ñu wax ci ñoom sax day naan ñooy génn di ko dénoncé waat xam ga si c'est loolu li mu ci wax te bokk ci ñoom donc it loolu aussi je salue le courage. yéeme na de. waaw maa ngi saluer le courage aussi de Pape Djibril Fall. wax une personne intègre koo xam ni. éthique ma nga fam nekkoon donc li ñuy wax euh, am na ñoo xam ne ba léegi seen góor moom la dee. dëgg la dëgg la. bon waxee na ko waxin woo xam ne waxinu teggin woo xam ne tey jii bu doon keneen noo ko wax ko fa fekk. ndax koy wax li li mu wax keroog li mu wax lu rëy la wax loo xam ni. wax ju rëy la wax wax jooju dafa dafa secoué conscience su nit ñi mu leer ma ni tey jii ko waxee woon bu doon. keneen na ko wax du fanaan foofu mu fanaan. bu doon bu am am biir Guy moo nekk ci biti wax ko ci biir lay fanaan yi. waaw ci biir lay fanaan ci biir lay fanaan yi. mais moom ndeysaan mm, tegu Serigne Touba bi xam ni xam-xam la ni mu àndut ak i teggin ak jay la loolu la utilisé. dëgg la. Serigne Touba dañu woon kër gi ñaar rek benn rek lenn rek fi ne. Mm-hmm. ku ko fi yóbbu ku ko fi jëlee bàyyi woo fi dara ku ko fi ku ko yóbbuwoo dara mooy yar ci loolu la jaar ba véhiculer son message waxal ko ñëpp waxal ko ñi nga xam ne ñëpp gor lañ waxal ko ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi ñi ngi dund lii ñuy dund nga xam ni mhm. euh, danoo wane une une face de la médaille rek wane wuñ le revers mhm, mhm. waaw li mu wax ni le président muy muy wër saako ceeb mel ni kuy def kuy def kuy rappel l'armée Eh, foo foo dem di maye saabu ñu lay filmer di ko wane c'est-à-dire que xoolal boobu kana sëñ bi amuñu saabu saabu raxasoo nga koy def kenn mosu ko gis donc léegi mooy douze douze milliards yi lay wax léegi nag euh, woy wi man woy wi li sëñ Aliou Gueye wax moom foofu di foofu laa opté wu mhm, mhm. woy woy wi laa bañ mu des mooy dimbalee nan jaswara bi nanga te jaswara bi ñoo daan joxe waaw ñooy ñooy dog bu mu de bu mu gàttee. waaw kon nan ñaanaat ndax ñaan bi moom mbir na ma ni ñun ñii li ñuy dund ak li ñu nekk ak li ñu dund. <laughs> bu ñaanee yàlla dégguñu yàlla bu nu kenn dimbale. dëgg la waaw yàlla nañu fi jëlee jàngur yàlla ko fi yor borom saafara ci nam gën a gaaw bañ delluwaat ci suñu yite te am loolu ñuy yàq Sénégal rek moo ko moom. amiin waay amiin amiin amiin. kon nañ nañ gën a góorgóorlu te te wax ngóor gi ne ko du nii cest dire nit bu nekkee ci njuumte dafa war a nangu ko te xam ne nekkul nekkuñu ci campagne électorale Macky. Mhm, mhm. il le pouvoir de gouverner jusqu'en deux mille lan. vingt quatre vingt quatre. man 4 ans et quelques yo xamni ken du ko ni wàccal place bi hmm waaw Rick na def des choses intègres dañ mm-hmm. mm-hmm. fi ci campagne électorale bi mu fi amee soxna ci soxna ci vi nek soom yi rëccoon mo nan waji ji na fi cinquante millions 5 millions yi defe naa ko sama déplacement ak samay samay téléphone ah ban auto la da utiliser mm-hmm. yan ban téléphone la yoroon xanaa téléphone satellitaire yorul la yoroon li ci des nañ seet ko na wàccu leen ci dara yi seet nuñ koy def c'est-à-dire dafa am loo xam ne boo ko dee wax en tant te xamoo te ko yàlla yi génne mais sëñ bi xanaa gàcce du la rey. man de li fi jox saako ceeb ni la seddale ko. nit ñee ko moom boo ci kilo. 15 millions de kilos ngay millions. quinze millions de kilos de de personnes ngay layoon. Hmm, hmm. institution yëpp noonu noonu la demee c'est-à-dire nit il faut mu gëm yàlla. waaw mais mais Ablaye. si Ablaye. Euh, gis nga gis nga manque d'éthique boobu. Hmm. Euh, ñàkk xamaat sunu ay sunu sunu sunu sunu sunu réew moo ko waral parce que tey jii buñ la nee dëkk bi am na koo xam ne amul saabu. nekk ci boo dawee presque cent kilomètres wala cent cinquante kilomètres nekk fa. ki nekk ci dëkk bi. jiite dëkk bi ñu ne la oto bi muy dawal rek ñi ñi yor nguur gi oto bi ñuy dawal li ci gën a tuuti quarante cinq millions. tey jii lu mel ni xew nga gis dëkk yu bari am na dëkk yoo xam ni ministre yi dañu jël seen salaire yëpp te gàtt ko ci biir fonctionnement état bi maanaam remettre remettre à disposition de l'état fi mu ne na jafe na léegi koy gis mu sol karawaat ci dëkk tubaab yi lu dul premier ministre te buy def. discours solennel wala président xoolal bu baax li ma lay wax. suñu mhm. président Conté bi boo ko gisee sax test sax du ko sol day sol chemise lem loxo yi. cravate ah. mhm. maanaam euh, barab bu ne dinañ dem saytu la fa manqué ak la fa war a dem. Mhm. Euh, xoolal tey jii bi ñu nekkee confinement. décret décret Cura Italia bi. ñu ngi ci quatrième xaw ma cinquième autocertification ne. Mhm. Euh, autocertification ne boobu mi ngi ànd ak ay provvedimento loi yoo xam ni du loi yi dañuy indi loi yu bees dañuy seet ni lii def nañ ko àndul ak exigence waa dëkk bi ñu defaraat ko yokkaat ko ci li waa dëkk bi di dund pour mu gën a woyefal wala mu gën a dëgëral wala mu gën a yembal li waa dëkk bi di dund mhm. mais Sénégal Afrique rek ngay gis buur bu taxaw ni li ma wax du dañ du ma

Mm. gaa ñoo ko moom gaa ñi ñëpp ci ñoo ko moom c'est-à-dire nag léegi Sénégal dañ leen a yóbbu ci benn état boo xam ne jàpp nañ ni li leen président bi defal wala li leen ministre bi defal wala li leen maire bi defal mm. cest à da leen koy may cest à ci poosam lay jóge mais mm. ministre bu fi organ bu bu fi tuddee soirée la muy joxe mais bu génn woon ci salaire am buñ ko tuddewaatee soirée du fa dem ndax du ko du ko mate mm-hmm. ci caisse de l'état bi lay jël di ko joxe nit ñi jàpp ne defal na la fekk yow maanaam dafa sàcc yëfi ah, yëfi yëfi état bi rek jox la. dëgg la. donc loolu lépp gisuma ñu koy dund ci état ba gisuma ko ndax li ngay wax train de vie état bi dafa dafa dafa ëpp doole li li état bi war a defal nation bi xam nga li leen Marine Le waxoon bi bi bi bi bi feebar bi tàmbalee lu leen wax France du accueillir benn président africain bu bu feebar. parce que depuis ngeen am indépendance 1960 ba léegi vous avez eu plus de 60 ans pour faire des des des infrastructures adaptées loolu loolu du gàcce ana kan moo ko ci doon ci ñoom. parce que ah, mënut a démontrer ni mënut a démontrer ni li nga wax man am naa ko sama réew. waaw. la preuve mooy hôpital principal ba fa ba fa recteur ba xaw ma ko ko jiite ba mu feebaree dañ ko évacuer France. Hmm, sunu sunu premier ministre. ah sunu premier ministre. ana ana ñi fi faatu yoo xam ne ñoom tam yàlla na yàlla yërëm biñ ñu ci nekk France France la ñuy la ñuy la ñuy fajoo ji buñ feebaree ñu yanu yanu buñ dee ñu andi néew bi lan lañ koy doy. donc am na loo xam ne aussi euh, il faut ñu dugal ko ci sunu constitution cest à nit ñi ñun dañoo gëmut lan mooy am mbind sëñ bi gis nga boo ci daanaka yaag yaag yaag yaag yaag waa waa Iblis gis nga Iblis mu fi digle sëñ Pape li mu fi digee li mu fi digee lépp bind ko ay nax waaw lim bi digal lépp lu ni di nangam seytaane lim digal lépp bind ko bu ko bindoon man ko ay ñun dañoo gëmut loolu c'est-à-dire constitution boo xam ne heure bu la neexee mën ngaa jug changer ko te dara dara du ci digg parce que tu la majorité à l'Assemblée nationale lan ngay def da ngay soumettre un projet de loi boo xam député ñoo voté ces députés fa nekk la majorité mais avoir la majorité ça ne veut pas dire que da da marteler la minorité parce que minorité ci peuple bi la bokk dëgg la dëgg la. kon il faut ñu dellu ci éthique dellu ci njàngale moo xamante ni njàngale bu dalay leer ni. la sëñ Touba waxoon Samba Laobé mooy nekk. Mhm. Samba Laobé dafa bindoon sëñ bi ab bataaxal di ko laaj moom nan la war a doxale mhm. waaye la ko xam parce que bi bari na i il faut ñu am lu leeral sëñ Touba amutoon ba maanaam jotu jàpp mu am am mag feer mu ko bind leeral naan ko del daf nangam ndax moom day nekk ca la ko war ngir nit ñi kopp te ñooñu copié ko. Mhm. léegi nag ñoom ña nga xam ne ñooy bind ay bataaxal sëñ bi booy dal dem ci kaw bataaxal dañuy gis maanaam jot naa ci sa bataaxal. waaw mhm. bi yaa bind. Ah, maa ngi lay bind mbind yi ngir laajure la. Mhm. maa bëgg nga bàyyi xel ci buur gi nga yor xamal ni kii loxo la toxo doog ak si say loxo. te noonu lay toxo ci say loxo dellu ci yeneen loxo. kon. ñi fi toog nañ jàpp ne en deux mille vingt quatre bu ko yàlla soobee ñu respecté constitution bi duñ fi toogaat. Mhm. te nit kay ñëw mën na leen jiyee à leur fait. Mhm. loolu lépp sëñ bi war nga koo daw nekkoon ci ba yàgg ñu jëlee fa yóbbu ci kaso mais sëñ bi loolu ma ko gën a métti. ci bàyyi xel da nga def loo xamante boo fi jógee da naan voilà li naan manipulité lañ daan wax manipulité ci jamono yi di Pietro boo ko Mhm, dama ne mhm. tàllal say loxo daal ni man samay loxo set na lekkuma alal askan bi waaye tey jii ñii fi a génn ni danaan lekkut alal ba ñuy jox ay ay ay ay maanaam maanaam kay lenn rek ngay <laughs> juróom-ñaari at ci ginnaaw a photo ren nga teg ko rek day am da ngay gis yokkute koo xam ni ci wàllu nga indi patrimoine am lan la amoon moom kat la woon wala moom taxi la daan jeex <laughs> waaw waaw waaw sëñ Ablaye xam naa ni jege nañu tëj bi waaye man bëgg naa tey jii euh, ñu waxtaan tuuti ci wàllu koppar yooyu ñu nga xam ni moom la ñu séddale fii ndax it euh, bari na ñu dugg tey waa Brésil waa Argentine Espagne ñëpp joxe nañ seen xalaat yéen ñi nga xam ni yéen ñu ëppale te nag yéen la ñu yaakaar ni yéen ay capitalu Italie waaw noo leen gisee séddoo boobu ak séddale bi te gis nañu ne war nañu teg fii benn kuréel goo xam ni daayira yi association yi euh, euh, euh, ñëpp war nañu am benn représentation boo xam ne xam naa Pape dinañu wax ñaan ñoo ci war a teew yéen ban ban gis-gis ngeen ci am ci ci ci ci ci ci alal jooju ak ñi ñi nga xam ni ñoom la wax ci njëkkiteel bi ñoom ñoo ci war a am mu première phase bi. sëñ Ba seen seddale bu jafe lay doon damaa xam nga lu muy doon seddale bukki bukki bi moom daa daa reyu nag daal saam ko ñetti saam. Mm-hmm. Euh, ñeenti saam la ko saam ni li bii bukkee ko moom mm-hmm. bii njuur mm-hmm. bii sàmba bi mm-hmm. ci des njëkkantele te teg naa sama loxo loolu ragal ni moo ciy am ndax charte yi koy war a séddale dafay amut ndax bu dee dimbale moom daanaka boo gisee ñun liñ doon doxale nii ci jamono yi ci ginnaaw fekkoon nañu ci ñu jël di def mbokk euh, taalib bu nekk wala ñu jël caisse caisse sociale yi nga xam ñoo nekk ci daayira yi seet ñi nga xam ñoo bokk ci day daayira yi ak lu ñu yittewoo gis naa barki dem bu assos bee def na ko maa ngi koy saluer mhm. di siyaare soxna soxna soxna Marème moomu fa nekk ñu koy séddale ndeysaan ci néew di doole yi lu am solo boobu mhm, mhm, xaalis boo xam ne pap man bu ma ci jotee day yóbbu sama ngor yóbbu sama jom ba pare ñu ñu recensé ma bili pande sama tur fu ne loola man ku koy jot ci du ko soxla la dëgg ndax maanaam intégrité bi da ci du am mhm. te la ñu andi daa doyut ndax li waa ji doon wax am na ku ko doon leeral dama dafa mel ni sëñ ñi Moustapha Guèye la mu ni immigré bu dana la jox téeméeri téeméeri euro gars yi jàpp ni eh, téeméeri euro yi cinq cent euro la déedéet téeméeri euro cent euro la <laughs> parce que gars ñi dañuy dañuy dañuy jëlee ci rouler chiffre te xamuñu ko bu nee juróom fukki euro waaye ñu jàpp ni deux cent cinquante euros lay jot fekk juróom fukki euros cinquante euros la. Mm-hmm. loola mënta maanaam ku yor ñaari gone dong mën laa yor. dëgg la. donc li sëñ Aliou daanaka doon wax dañuy gisaat mooy xaalis boobu est-ce que waruñu ko mën a yamale Sénégal def ca la ca lañ ca war def. Mm-hmm. moo gën ñoom ñu ko fii di muy ànd ab ab xuloo boo xamante ni dañ naan Lombard bi nangam la ci am Toscane nangam la ci am ba pare mu des ay réew ndax Brésil dañ ko tuddee Espagne. ba ci fu gën a sori ci monde bi sénégalais nga fa te mhm. mu doon loo xamante ne ak takkal deru doomu aadama la te fajul ay soxlam waaw boo paree nag ñu recensé la ci ah bu àggee ci mbirum watkat nag yow ginnaaw jox na na ku la <laughs> naan ku la ëmbal sa kersa ëmbal ku la ëmbal sa sangal ëmbal sa kersa mhm. loolu laay ragal ni moo cay war a kon lool rek mën naa mën a ñàkk waaw ah, nan seetaan daal noo xamante ne man nañ ko defee mu gën a rafet gën mhm. a jot ñi nga xam ne ñoo ko yittewoo ndax am nañu ko yittewoo biir dëkk wax dëgg yàlla am na nañu ko yittewoo buñ sañoon jafe-jafe yi ñu toll wax dëgg yàlla kenn yéene wu leen ko waaye ñu dimbali leen te loolu état mën na ci dara ndax xaalis li ngay wax train de vie ba bu état bi buñ ko wàññoon loolu tey jii xaalis yi waroon naa mën a ëpp li dëgg la dëgg la dëgg la sëñ Pape xam naa ni mel na ni ñu ngi ci cappaandaw kii bi ñu ko wax ni xabaabal bi <laughs> waaw xanaa rek ma joxaat la kàddu gi moom xam naa ni moom sunu waxtaan yi di ñëw bëgg naa ñu waxtaan ci li nga xam ni moo di phase doué bii nga xam ni moom la ñuy waajal. ndax nag lu mat waxtaan la jamono yi maa ngi démb rek maa ngi ciy def benn benn euh, live boo xam ni xam naa ni nit ñi xëy na du ñu comprendre. mais maa ngi ciy expliquer situation bii ñu jëm. pour ñu naree bàyyi ñu génn. Euh, euh, au danañ ah, ci euh, tënk lii nga xam ni moo di euh, maanaam jël say données données yi mooy xam suñu déplacement xam suñu lépp loolu nar na cee bokk ndax dégg ngeen expérimenté boobu ñu bëgg def ci Imoni Imoni di benn application boo xam ni moom ngay def pour mën a génn loolu bokk na ci li nga xam ni moo di restriction de liberté yooyu surtout nag ñun sénégalais yi nga xam ni. lu ci ëpp daanaka li ñuy def ñi nekk ci liggéeyum njaay mi ñi nekk ci yeneen yëf yi nga xam ni bokkul ak li état bi santaane loolu lu war waar la bëgg naa ñu waxtaan ci ak phase Doué bi yan ditaa ñoo war a dugg ak yan protocole norme de sécurité yooyu moom xam naa ni xaju fi waaye dañ koy bu jaree sax ñu def ko beneen live spécial comme fan yii ñu ngi ci confinement seet beneen bés boo xam ni wé euh, dinañu libre ñu def ko ci euh, bu xënteeg sëñ Ablaye ci waxtu daara xasanaat rek balaa moo dugg ndax loolu dina nekk loo xam ni lu luy soxal sénégalais la parce que gis naa fan yii rek sénégalais yu bari commencé nañu am ay molto parce que xam nga sénégalais yi ngay gis seer bu dëkk Parma dem di liggéeyee mm, di liggéeyee Toscana te amu fa résidence donte mu fay liggéey di fa liggéey ay domicilio bi sax du ko du ko déclaré léegi buñ ko contrôlé gis ne moom mi ngi ci commune boo xam ne amu fa résidence si yoon dañ koy molto bu bu gisee ku baax léeg-léeg ñu bàyyi la mais man gis naa ñett ñu ñu ci def ñu ngi ciy dem charrette ba pare molto leen molto bu cher parce que fu ñu dëkk ak fa seen këyit nekk bokkul ak yeneen i euh, disguide yoo xam ni ci loi bi daf ñuy tënk mais ñun daanaka dafa mel ni bokkuñu ci loi bi di def daanaka porte masqueré yi léegi obligatoire la yooyu yëpp mu nekk ay ay ay ay ay euh, ay tegtal yoo xam ni war nañ ko di. di biir gars yi sinon rek xëy na mën nañoo am ay jafe-jafe sëñ Pape ma jox àll kàddu waaw jërëjëf sëñ Pape xanaa rafetlu vraiment eh, intervention sëñ Ablaye moom yaa ngi soog a dogal nii ñu ñu gisee eh, macha allah ci ci intervention bi eh, recommandation yi mooy nag faaw ñu delluwaat si danañ ci dellu si waat parce que mënta ñàkk ndax ñu ngi jëm ci beneen phase boo xamante ni xëy na moo gën a compliqué sax quoi Euh, moo tax faaw ñu am lu ñu teg ci askan wi teg ko seen i loxo euh, pour mën leen a jox information pour aar leen. Mm-hmm. beneen phase deux tamit dana ñëw mooy deuxième tranche yu koppar yi. Euh, pour xam aussi comité boobu ci yan critère la ñuy mën a doxee ak ci lan la ñuy mën a xamee kan moo ko yellool ak ku ko yelloolul. Mm-hmm. mais am na benn loo wax sànq ci lu am solo ci pôle économique. Mhm. Euh, ci jam ñaajo ñun des na tuuti jam ñaajo foofu Sénégal euh, amul du am sénégalais bu fa am benn euh, benn mètre carré tey jii boo demee nga def sondage foofu la ngay gis mooy tubaab yi jox nañ ko tubaab yëpp sànq bi ñu koy wax bëggoon naa ci dellu siwaat mais xam naa ni. ñu mhm. ñëpp ci def émission ci ñun. Mhm. wàll wi ñu am Sénégal ndax mhm. nekkuñ jamono boo xamante ni suñu wàll Sénégal ñu ngi koy commencé di per kooku mhm. c' est je pense waaw ah, buñ ci boolee buñ ci boolee di ñu suul rek mooy ñun bokkatuñu immigré. thème la bu ñu mën a waxtaanee. boo ah, xam ne ah waaw dëgg nga nee ñu bu ñu ñëw ni ñuy rek <laughs> ah, ah, ba tax na du ma guddal mais daal li may wax rek mooy lancer un appel euh, suñu kilifa yi suñu njiit yi suñu autorité diplomatique consulaire yi vraiment ñu ñu créer ce comité là parce que comité bi du war a juddu rek war a yem ci liggéeyam war a yem rek ci euh, seddoo xaalis mais liggéeyam war na gën a dem all train war na gën a sori lii war nañu gën a am yeneen vision comité boobu war na mën a nekk un relais entre les associations représentatives yi fi nekk dina mm-hmm. euh, dinañu mën a permettre aussi ñu mappaare pratiquement association yi fi nekk dëggantaan euh, plateforme bi comme ni ma ko waxee sànq mën nañoo dimbali pour que ñu xam la diaspora fii ñaata lañu non seulement en Italie mais fépp fu ñu nekk en Italie euh, ci àdduna bi mm-hmm. damay gàttal rek ndax xam naa ni li duuf ci nag bi yëpp xaju Euh, di jéggalu bu baax ci kàddu yi bu dee am na lu ci dëng rek suñu ñàkk ak matali la waaye def lu baax ak wax lu baax rek ñu ci dugal. macha allah jërëjëf sëñ jërëjëf Baye Makhtar jërëjëf ñu ngi ziar bu baax di di rafetlu kàddu yi waaye it eh, di sant mbokk yi nga xam ni ñoom ñoo tey intervenir yi ñëpp ndeysaan sunu mbokk mi woote Brésil. Euh, Euh, mbokk yi nga xam ni ñoo doon dégganteeg ñun euh, mbokk moom sëñ jaajar bi woote Argentine euh, mbokk mi woote mm, bi bind Espagne mbokk yi nga xam ni ñu ngi bind ñoom sooy bu aan Daaru Baay Fall Assane Badiane Bada Gueye sëñ sëñ sëñ Modou ndeysaan moom it Modou Diouf Mbassa Euh, euh, honorable sax député ndeysaan nangoo mi ngi ñuy suivre kon euh, mbokk yëpp ñu ngi leen di di ziar soxna Marème ndeysaan moom it def na intervention comme d'habitude sëñ Ñang Baye Fall Alioune Guèye ak ñëpp rek di di di di di fàttaliwaat ni nga ko pap ni nga ko waxee man damaa gëm ni jamono ji nekkul jamono bu ñuy toog di xoole dañu am benn situation boo xam ni dafa nekk un programme mu ne toog di xaar te jii association yeeg daayira yi dañu am euh, dañu am euh, l'obligation ñu ñëpp nekk ci benn kuréel maa ngi rafetlu lu baax kuréel bi juddu euh, ci nord bi sunu sunu sunu sunu néew sunu sunu réew mbokk yi fa nekk yëpp mu am beneen kuréel bu nekk ci jaspora bi mbokk yi avant tout ñooñu jóg boolewu tënku te kuréel yooyu daayira yi parti politique yi association yëpp ci bokk. dafa war a nekk un départ boo xam ni ci la ñëpp di ànd pour mën a euh, ëllëg mën a yóbbu suñu kàddu nag ndax mënuñu nekk mbooloo mu nekk ku nekk bu xëccee fii këre xëcc fële euh, donte léeg-léeg ñu juboo sax ci bokk ñëpp xalaat waaye la ñuy tënk foofu mu nekk lu mbooloo mi di ànd ñun ñëpp ñu xam ni kat mbooloo mi ñëpp ba ñu waxee ba juboo lii lañu lii la ñu tënk ndax nag sunum réew man dama gëm ni daf ñu war a delloo suñu dignité waaye jamono jii ñu toll

vraiment ñuy jox sëñ ablaay ndax dañ ko baaxoon ak jamono yëpp bi bi bi bi bi mi amee ba léegi euh, ab sëñ Ablaye ñuy moo ñuy tëjal tëjal ñoog ak i ñaan waaye sëñ Ablaye tey dama lay yalwaan lenn ndax sama jëwriñ tey ji bisub tey euh, euh, la sëñ abdu Hakim wu fekki woon waajuram wu tedd wee sëriñ Basiru mu noonu nag bésub ñaan bésub fàttaliku boo xam ni Kep ku bok daru minam rawatina nak ku sa buntu nak sa keur seigne abdul hakim eh, mu ñu nekkon defon ko bésu fàttaliku tey jii don ci wacc ay kamil don ci def ay cd mani na la jox nak kaddu gi tey jii ndax eh, lott ci lol ngir fàttalu ko waye xamna ni du ñak yow dana am lom ci mëna mëna baxé seigne baaxee sëñ ngi pap jërëjëf eh, tudd nga ko baax sëñ abdul hakim moom Turi dong doy nag Mhm. Eh, ndax eh, hakim moom dafa bok ci turu borom yi mooy lu xarañ. deug la. suñu abdu akim ku ku xool jëmm ji rek dalay yar ndax mhm. suñu suñu jëwriñ da koy wax say ibrahima khalil da koy maa ngi nuyu day wax ni waré baxna waye ku la xol waro ko gën. deug la. Eh, ko xamni kaddo moso kàddoom dégg mu yëkëti ko ca kaw. Mhm. bu toogee da ngay nan ki du mag. rawatina bu ma saan dend ak sëñ Muntaxa nga xam ne ndeysaan da ko sopp bëgg ko ni mu koy xoole sax da koy ñëwat lay ndeysaan eh, ba gis nga kàddu yi sëñ Muntaxa yëkkati woon ndeysaan keroog ban koy denc ni ko eh, sëñ Abdu nax nga ma mm-hmm. sëñ Abdu ma nax waaw ndax mm-hmm. te yooyu yëpp ñi xam dara xam nañ ne sëñ Abdu moom daa joxe mbiram mm-hmm. waaw daa joxe mbiram daa joxe mbiram ndax yéena ju am ci sëñ Muntaxa eh, di ku baax Mm-hmm. bo xamanteni ni xolé khole rek suñu borom manam xel delu ci suñu borom subhanahu wa taala ab serigne lo rek lay jëriñ suñ bopp deug la deug la serigne boo xolé day wéro melni ni suñ Saliou Mbacke ba suñ Muntaxa ba khole, Abdou Hakim ba ñi mel ni ñoom mm-hmm. xam ne boo ko xoolee daanaka darey adduna saf lu du delu ci suñu borom ak jaamu yalla da nga nan wa ki num def ba mën melni na na najim lola. loola mm-hmm. waaw wute ñi nga xamni tay ji lenn lu ne dañ koy ak lenn lu ne ñu ko nan mana mana ñako doon waxu ne ko doon waxuñu ko te ku leen xool xam ne yor nañ wala yorunu dëgg la manoon diis gan te woyof tooy ndax kuy sa baay cheikh mamadul bachir kuy sa maam cheikh ahmadul xadim mm-hmm. kuy sa maam sëriñ daga isa diop kooku mm-hmm. ci sëñ nu nube diop mm-hmm. kuy sa maam sëñ maruba gueye cheikh maam baba gueye dëgg la loola doy nag mbaax loola doy nag mbaax rawatee nag ñu bàyyi fa loola nga xam ne laytaay la waaye ñu defaat seen yëfi bopp yoo xamante ni kenn fekku leen ca. Mm-hmm. loolu yaakaar naa se sëñ Abdou Hakim bi mu demee ñëpp la wéetal ñëpp a ñàkk. daaru minam rek ñun ñëpp ci lañ. yoonu mm-hmm. murit yoonu yoonu Sénégal Sénégal ku jullit rek. xam nga ni mm-hmm. sëñ Abdou Hakim kenoo la woon ci keno yi suñ borom yi. kon nag li ñuy ñaan rek mooy wax dëgg yàlla sant ndax buñ amoon keneen ku mel leneen it day day ñàng rek te du tee ñu yor ko. dëgg la ndokk nag ndax sëñ sëñ mag bi kat am na ku ñëwoon ci moom di ko euh, jooy euh, mbokkam mu nelaw di ko nettali nam baaxe woon nag nam ko daan defal ba yàgg ndeysaan muy tuuri xéewal sëñ Tuubaa ni ko da ngay sant yàlla nag ndax deele ku baax moo gën dundale ku bon mm-hmm. kon nag loolu nañ ci sant suñu borom ban amee sëñ Amadu Hakim mu dundi fekk nun miinal ñu boppam xamal ñu boppam jàngal ñu ay valeur ba pare nag dem ah taxaw dina xool ndax it loolu it ma leen koy dénk yéen ñi nga xam ne moo doonoon seen bunt ci mhm. Sëriñ Tuubaa mhm. fexe leen ba bu leen ko rusloo ci fa mu nekk mhm. ndax euh, wàlliyu kat bu nekke ci jamono benn bët lay xoole waaye bu nekkee fay suñu borom sax day ful bët yi ba mën a jàkkaarloo ay taalibeem nag yéen it fu ñu leen seen nan xam ne kat foofu ngeen bokk ndax di way sama sëriñ kat la dimbalee sa sëriñ yow waaw bi fi sëñ bi jógee Cheikh Moustapha Al Karim toog am na mag mu ñëw ci moom di ko naan ah sëñ bi dama laa yërëm ci yan bi ma ne sëñ bi dama laa yërëm ci yan bi Cheikh Moustapha Al Karim niko ko yow ana loo ma jàppale ana loo may dimbalee sëy jëmm jëni tekk mu ne ko téel ma sa bopp rek yow sëy kon nag yéen it na ngeen téel seen bopp Cheikh Abdoul Hakim te xam ni mi ngi jàkkaarloog yéen mm-hmm. ba ku leen gis mën a jàngate li ñuy mën a wax mooy kan mooy seen sëriñ ba kan moo leen yar mm-hmm, mm-hmm sëñ Tuubaa daana wax kat ni maanaam eh, diw boo ko xoolee ñun la daa yaru laajal kan moo ko yar mhm, mhm. waaw kon nag ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi sàkkul ñaan képp koo xam ne yaa ngi dégg sunu kaddu nga mën a def faatiya ak fukki lixlaas ak benn fegge mhm. ko salaatu ala nabi boo mënee xasa dëgg jaawatu nga boole ko ci ñu def ko addi si ahmadul hakim ak ñam fekk ñëpp ak ña ko fekkaat ginnaaw bi ci jullit ak ña ko fa nar a fekk ñëpp ci jullit waaw te suñ borom yàggal fi mun Muntaxa ak suñ Isaaxa ñoom ak suñ Alaaji Fàllu ñoom ak njaboot yëpp mm. rek ak waaye njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp waaye taalibi Sëriñ Tuubaa yëpp di leen sant baax sëñ Pape ci ci jataay bi ak ak graphique bii ngeen def wax dëgg lii moom innovation la mm-hmm. eh, nii rek la jamono bu dee dox da koy jiitu jamono waroo topp ci ginnaawam booy topp ci ginnaawam doo ko jot dëgg waaw léegi sëñ Tuubaa doon wax xastu min dunya wa xusa dalil jinaan mm-hmm. dunya adduna da koo tàggat ba adduna wër bi di di ko di ko liggéeyal noonu la waaye waruñoo topp ci ginnaaw àdduna di ngar-ngar bu booba dañuy sonn dëgg la dëgg la waaw di sant di sant ñëpp di sant Thiam Baye Fall di sant sëñ Mahmadan moom ngay wax wax dëgg yàlla moom itam jàmbaar la di sant sax Ibrahima Khalil sëñ sëñ Moussa Mbaye Sam ñoom ñëpp rek mm-hmm. eh, di jégalu lool ci guddee gi ndax tool bee yaatu rek ma yoroon sama leer am feneen man itam fu ma ko doon kii rek moo tax daanaka ma yéex a ñëw waaye ni moom dugg gi mën mënta ñàkk ndax li ngeen di yaakaar ñu ñaan rek yàlla bu suñu borom tas yaakaar yàlla na suñu borom dolli xéewal ci julit ñëpp fépp waay nekk lii nga xam ni ñoom ña nga koy nasal di ñu ko yéene te naan dañuy yónnee par nan fi jëndi armel mhm. eh, yàlla bu fi kenn faatu man daal loolu soog ñaan yàlla bu fi kenn faatu yàlla ci am gàcce ñoom amin waay yàlla bu fi kenn ti waay waaw ndax dañ ñoom eh. yaay mi ngi ci doon def waxtaan bu am solo di ci def jéegi am solo doon ci leeral ndax kenn ku nekk sañ nga dëgg la maanaam bokk na ci dénkaane yi jullit. Mhm. mooy la way way dem ja lam lam lam bëgg ñu defal ko ko. Mhm, mhm. te ñun ñi ñëpp ku sañoon doo fi faatu waaye nag bu yàlla dikkee ko dikkee ko dogalam ku sañoon tëddi Tuuba. dëgg la xaa nga tëddi ci say mbokk. rawatina tëddi xam ne yow gouvernement bi da ko ci jërëm. ndax fii mas gis gouvernement bi moo fi transporté benn néew benn salma déedéet daayira yeeg association ñoo leen di yow ak ah kon nag lool nag bu ko xañ. Mhm, mhm. Ah, ci naan ndax dañuy dañuy wàlleeg dañuy gis ku dee wér. ku dee wér. te mhm. soxna Mariam mi ngi koy wax mais ku dee wér. tawat ji jàpp nit ba mu faatu. buy dañ. kon nag nan delloo si xel yi te xam ni eh, ay sénégalais la loolu dafa bokk ci droit. waaw dafa droit nit ki am na droit bu juddoo fi mu nekk droit yi lënk ñëpp moo koy lënk maanaam hmm. transporter nit fa mu bëgg ñu yóbbu ko fa. Hmm. loolu dafa bokk ci ndénkaan yi nga xam ne moom la ñuy defal way dem way dem bi. bokk na hmm. ci ci ni asamaan li nga xamante ne bokk na ci ndénkaan yi xam ne dañ ko war a defal. dëgg la. waaw kon nag loolu nañ ci bàyyi xel te dellu si waat seen xel xam ne xaalis ñu soxla wuñ ko lii transporté néew yi ñoom du gouvernement ñoo koy def soxla wuñu ko. te rawatina dëkk bii ñu nekk nga xam ne gis nga ni seen néew yi ay at lañ leen du lii fi leen di denc. Mhm. waaw bu weesoo at yooyu ñoom dañ leen di génne fa ñu nekk bu dee suñu borom dafa dogal suuf lekku leen wala ñu mhm. dañuy def ay produits def ko ci pour mu seey leen ñu jël ko def ci biteel jox seen i mbokk loolu nun tënguwuñ ci loolu dëgg waaw loolu gis nañ ko gis nañ ko mhm. fii néew yi fii yin fii denc ñu aj leen ci étagère yu ni mel bu yàggee am na ay at yu leen di wax dañuy wax seen mbokk ni leen kat kaay leen ñu ubbi ko xool waaw ñun nag ñun suñuy néew dañoo bëgg leen naan ñu ñu ñu ñu tëdd ay bàcce suñu borom defal leen tawfeex su woyof ci seen kaw ñu ñu ñu a dekkee àjjana rek nag. Mhm. waaye ku sañoon moom moom buy xew daal yàlla ñu fekk Tuuba fii daal sëñ Ba ñaan gi may ñaan mooy ñaa ko sax naa ko dagal ñëpp yàlla bu fi kenn faatu. yàlla bu fi kenn faatooti. waaw yàlla laa koy def te man. dëgg la te te innama amru iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun rek lay doxee. Mhm. waaw yàlla na ko yàlla yàlla def maa ngi nuyu baax suñu jaga kebe mhm. ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi dégg a kàddu Touba la ñaanoo ñoom tam suñ mhm. daam Thiam ñoom Milan wax dëgg ñoom ñëpp suñ Moussa si ñoom wax dëgg ñu ngi bàyyi xel émission bi suñ Alaaji Njaay suñ Pape Birama Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant daal ndax lii yéen a ngi ñuy wutu ci loo xam ne wax dëgg mënu lañ ko mhm, naa ma ma ma tëjee xasi dëgg suñ suñ rek mu yaa rahmaanu yaa rahim jërëjëf bu ko defee ñu ñu ñu xam nga sëñ eh, sëñ Pape dafa am loo xam ne duñ ci bàyyi xel. Mm-hmm. iti àdduna yi bu ñuy toog dañuy yor la ñuy yor seen première déclaration day ci bàyyi xel. Mm-hmm. waaye sëñ Saliou ba mu toogee xalifa Cheikhul Khadim eh, discours ba mu njëkk a def yaa rahmaan yaa rahim la la la la jàng. Mm-hmm. biir na leen kon yërmande jëm doon wax ni ku dul si yàlla suñu borom ëpp mu yërmande jaam yi. loolu la doon doxee. ñu nit nañ ci roy te yërmante suñu biir dimbalante suñu biir. daane sa morom nga koy def ci jamono jam waré ndax da ngay dem jamono jo xam do ko man deug la tolloon nañ ci jamono jo xam ni manon nga togg dem yakal ko sant njaay waye tay ji mënuma ko ndax ma ngi tay sama kër nan la ko koy joxe dama <laughs> koy man na koy def bala bala bala bala bala tele ñëw mhm. ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam gawtu len ci juroom yi balaa juróom yee ñëw mhm. gawtu len ci sen ndaw bala ngeena magat mhm. gawtu len bi ngeen yoro bala ngeena ñak hmm gawtu len bi ngeen bala niw do lay ñew hmm dëgg la gaawantu leen bi ngeen amee wér gi yaram balaa wér ñëw. Mhm. waaye gaawantu leen bi ngeen di dund balaa dee ñëw. Mhm. Hmm. waaw kon ngi dégg lu baax Pape Makhtar maa ngi lay sant bu baax di sawar di sant lool ci gisa bi lii kat moom na solo. ak saa téléphone bee déchargé woon ma daw di jëli bi. tarkale tarkale kontaan kontaan nañu bu baax a baax. xam naa ñu ñu jàng rek yaa yaa rahmaan yaa rahim ñaa rek mm-hmm. ñaanal ñaanal ci jullit ñëpp suñu borom def taw feex amiin waaye mos ci lit ñëpp barke Sëñ Tuubaa yàlla daal li may li may ñaan daal moom tam maa ngi koy sama xol. Mm-hmm. yàlla yàlla yàlla bu fi kenn faatu. yàlla bu fi kenn faatu ba mbas bi jeex waaye. waaw yàlla bu fi kenn faatu barke Sëñ Tuubaa. amiin waay.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 ينصر بها بركة الرحمن على أهبه وأخته وانصر بها بركة الرحيم على جميع أهبه وتقبل هذه الأبيات مني بقدر هزمة الذات آمين آمين يا رحمن يا رحيم ربي بما يشرون قد خنقفت قد فجا بجاء أفضل من الله الدجا حمدي لرب كريم لا شريك له وصدر اليوم نور ساتن ملاها محمد صلوات الله في أبد عليه في إذبه كل به كلها أدعو إله لزا حمد ما يبه لجملة الخلق ما يختار برا ناجيته جل أهوى أهواما وكرمني تكريم هاد وكل من دهن برا رحمن قبل جميل الخلق رحمة من يخني أني من قرآن أخرى أمة المصطفى أن كل مفسد وترحم الخلق يا من جد بدها يا مالك الملك يا من جل حود ارحم جميل الورى يا هيد يا هيد يا مالك الملك يا من جل حود ارحم جميل الورى يا هيد يا هيد ما هو تما هدنا والخلف من درين بجاي أفضل من لا بجاي أفضل من لله هل جاه سبحان ربك رب العزة ما يسون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا هاجر وجوه هاجر الوطن هب لي ما مت ويا سمود بجاي من سميته محمد صلى الله عليه وآله وسلم والآل والأصحاب من جميع سما هاجر وجوه ما السلام بلا ملامة ولا سلام وسأل حل يا ربي في أبد يا الله أنت ربي وأبلنا بركة زيادة ومدوى وافتح لنا كل باب كنت فاتح لصالحنا فتحت لي كل باب كنت فاتح جئتنا يا فتاح كل يوم يسر فتاح وهاب يا الله يا مالك دمرا كل أعداء تدور بالنصر رب استجب والتوكا من ما نويت للا توبا التي بك تبنا فيك بنيانا اجر جوهي إلى خومي سعادتنا وتجلى اللهم اغفر لي والوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء من والأموات بارك مام شارع فالمن آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته